aus billah bismillah borom tuuba assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen baalu àq tey baal ñëpp àq di ñaan sunu borom mu def ñu ay jullit xaqan def ñu ay murit saadiq xiir ñu cig jub te saxal ñu ci ba faaw jàpp ndalal ñu ngërëmal sëriñ tuuba def ñuy dëgg dëgg taalibe yi sëriñ tuuba yu sëriñ tuuba nangul seenu taalibe te gërëm ko boole ñu ciy tànneefam ñuy ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñ boroom yàggal ko lool te wéral ko te dolli kàttanam ba lim naa la liggéeyal Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam te nu ànd kook moom di ñaanal mbooleem ñi jiitu jullit yépp rawatina taalibe yépp yàlla na leen suñu boroom dolli yërmande ak njëggal te sëñ Touba doon seen wettal ñuy ziar bu baax mboolem waa daara ji yépp daaray Majmahun Nurayni ziara bu baax a baax te di leen bëggee itam di leen wettalikoo itam di ñaan seen yëngoo ak seen dal yépp yàlla na ko sëriñ bi gërëm te di ko bëggee mboolem ko ci bokk rekk yàlla na nga bokkaat ci abraar yay dar sëñ Tuubaa ëllëg barke Cheikhul Xadim ñi ngi jël nuyoo beeg ziar bi yépp di ko teg ci loxob sëriñ saale moom bi nga xam ne moom la mbokk yi waxal muy sunu wëllëre mën nañ koo wax di sunu mbokk di sunu xarit tam di ko nu bàyyi xel lool nit dañ koo gis ci moom te mooy pëstéef ci sëriñ bi moo tax bi mu nu ko waxee yaakaar naa weeru safar bi yépp sax benn yoon bii rek lañ ci génn bu weesoo barki dem bi ñu suñ xamsatu di def loo waxtaan daa nun dañoo jàppewut suñu bopp ay waxtaankat xam naa <laughs> day na waar dañ doon gëstu rek ngir bëgg sëñ Tuubaa ak bëgg a gindi ko ci moom waxtaane sëñ Tuubaa nag ni ko mbokk mi wax léegi moom ak jaamu yàlla la moo tax li ñu ci sawarloo bokk na ci ñu séq kook ñoo xam ne dañ koo yittewoo jàppe kook jaamu yàlla waaye bu dee ku koy jàppe programme rek da nga ci yëg sax sa bopp ne tàyyi nga ci waaye alhamdulilah coono yi metti na waaye jar na ko nag Sëñ Tuubaa daana wax ne déglu samay wax jar na sol daldi weñ di daw ba mu xar ay waxam day gindi am murit ni xasi xasaay tamit di gindee am murid am na foo xam dafa wax ne wa bi xasaidi ya yahtadil murid ci sama xaside yi la murid bi di gindikoo waaye wax na lu baree bari ne wa bi kalaamiya wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara wa jaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida loolu mooy ay waxam kon day leeral xolu murit bi di ko wan yoon wa jub xaside yi di ko gindi di ko ca teg kon ñu ngi leen ziar yéen ñëpp sëñ Tuubaa nag day jëmm joo xam ne li may faral di wax weer wu nekk wala jamono ju ne. warees na koy waxtaane di ko xalam. waaye jamono ji ñu toll moo ci raw ndax àdduna dafa fees dell ak luy naxal xol luy néewal doole ruux ba kenn mënatuta am kàttan ci digganteem ak boroomam Sëñ doon jëmm joo xam ne bu sa xel ne yar ci moom sa ruu daal di dund façon sa mu indil ñu yoo xam ne it saa su ko sa làmmiñ tuddee malaaka yi jege la muy xasaay di sa digganteeg sunu borom yi daldi ubbeeku muy xaras di barab bi gën a màgg ci barab yi sunu borom yi ñu xam sëñ Demba bi nettali na ne sëñ Demba bi bokk na ci ñi sëñ Tuubaa daan wax ñuy jële ay waxam ci moom ngir wóor gu mu wóoroon wax na ne sëñ Tuubaa mas naa wax ne aajoy murit day fajoo na ci di dox ci mbedd yorul njàpp am xelam dem ci benn ci sama bayti xasaay ji mu tudd ko la muy gàtt gàtt bayit wow fël na aras ba dellu si faj aajoom loolu lu lu yomba dégg la loolu ko li muy tegtale rek mooy màggug ay waxam màggug ay waxam sëriñ bi nag bu ñu ko doon misaal ci jëmm ngir nit ki di ko xalam lay njëkk a xam rek mooy Sëriñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne lépp a daje woon ci moom lépp lu ñuy melal nit ci ak mat dafa daje woon ci moom te li daje ci moom it mënoo wax ne nangam daa ëpp sëñ bi amul lu ëpp amul lu yées da ko daa misaal sax ma am lu mu wax am ko ne looloo ko sew sëñ bi ne nañ woo xanaa ma sàmbakaan yi nekkul ci jataay bi ñu wooyu ko mu ñëw sëñ bi waxaat loola mu ne sëñ ma sàmbakaan yi daan ko yaa kawam xel looloo ko kawam xel sëñ bi daane xërëka saama sàmba noonu lañ koy waxe man waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fu sew nga xam ne kon nit ku xamoon boppam la jëmm la joo xam ne guddul woon moom sëñ Tuubaa ñi koy melal ci ñi ko fekk gàttul woon itam kon boo koy xool mën ngaa gisub guddaay waaye mën ngaa gisub gàttaay ñaari melo yépp dañoo dajee fi moom doonul woon it ku tuuti bañ naan dafa sew ruuj waaye doonul woon it ku am yaram bañ koy melal ci yaram wu bari waaye nitu yaram la woon nag ñàkk jëfandiku moo tax mu tuuti ñi ko xamoon nee nañ bu la daa ñaanal sa ñaari loxo ci benn loxoom la koy ëmb mooy tegtal ne kon ku jotoon ay cër la yoroon xar bu tàlli te rafet te neex a bëgg ñi ko daa tere seeni doom dañ daa wax ne jàkk lay bañ ku ko ne jàkk bëgg ko boo ko ne jàkk bëgg ko xar kanam ba daa leer naññ boo koy xool day mel ne rekk dafa am leer guy yëg ci sa xol guy tàbbi ci sa ruu dafa jiboon itam ay tuñam dafa jiboon mu amoon aw yàlla woo xam ne sëñ bi daana reetaan bu masaa di ree dana ree ba gëñ a génn bu génnee ngay seen sàkkare yàlla wa suy wax doo bëgg mu noppi ndax saa bu tàmbalee wax wax ji day tàbbi sa ruu sa cër yépp day mel ni ñoo koy dégg moo tax bu masaa tàmbalee wax kenn du bëgg mu noppi sëñ bi daana toog jataay yu yàgg léeg nga dégg ñu ne sëñ bi amutoon jot wax ji bu guddee du sëñ bi nangam nangam déedéet sëñ bi daana toog ginnaaw gee ba fajar di wax ak gaañi ginnaaw gee ba fajar toog na ko ba tàyyi di wax ak gaañi loolu ñi xam njataay sëriñ bi xam nañ ko doonoon it koo xam ne ni nga koy bëgge noonu nga koy ragale maanaam sëñ bi kenn ñemewu ko woon am na ku may ci misaal sëñ Moustapha Saalix am na lu mu ko nuru ciy melo maanaam sëñ bi ni nga koy bëgge noonu nga koy ragale da koy bëgg waaye da koy wekk doo ko ñeme li fekk joxu la ndigal ci boppam kenn ñemewu koo ñaañ taar bi daa jaxasoo woon ak xëy ba noonu mu ko ñaane ci maraaxib wali yahëb bil hay hëybatal jamil loolu la yàlla boole woon ci moom xëy ba gu ànd ak taar xam nga nit ki mën naa raglu ba boo ko gisee doo ko bëgg gisaat waaye sëñ bi fi nga ko gisee fi nga koy nammewaat soxna xarit Penda Fall nettali na ne sëñ Njaga Sile moo ko nettali ne soxna xarit Penda Fall moo ko wax ne ko sëñ Tuubaa kenn du ko miin maanaam diggante bu gàtt da koy namm bu masaa toog di wax ak yow bu ne laa néeg ma daal di dugg ci biir bu génnee day mel ne kanee ñëw waaye du ki nga doon waxal day yeesaat ci yow doonoon koo xam ne it ay kàddoom ndànk la daa wax waaye baat ba day riir ba lu mbooloo mi bari bari ñépp mën nañoo dégg kàddoom néew na mu daa wax ñu di ko jottalil ci benn Tuubaa ñi daa réer ci àll bi nañ gindikoo ci kàddoom bu nekkee di julli ndax dawul wax allahu akbar goo xam da koy woyofal da ko daa da ko daa da ko daa daa wax ci kàttan da daa wax allahu akbar joo xam ne ku masaa réer ci àll bi bu waxtu julli jotee boo déggee allahu akbar ji moo lay gindi xamal ne la sëñ bi fii la féete daanañ ci gindikoo doonoon ko bari kersa it diisaayu kàddoom boobu am na ci yoo xam ne neexut a wax waaye léeg-léeg li kàddoom di woyof woyof ak li muy riir sëñ Abdullahi borom dër bi nuru woon na ko kàddu bu dee ci ñii dund nii sëñ Modou Habib nuru na ko kàddu moo tax sëñ Soñ bi da ko daa wax naan ko sa bar sa kàddu barkeelu gi nga xam ne sëñ Modou Habib boo ko déggee muy wax day day wax ndànk rek waaye da ngay dégg baat bii riir xaw na ko nuru kàddu léeg-léeg it kiimaan daana ci feeñ nit daana tollu fa sori di dégg kàddoom niñ daan tollee fu sori di dégg sabu kalimaam loolu nag ay jamono lay doon day am yenn saay wala ci kum ko jublu am na ku mas di ñëw ci moom toll fa sori bu doon fii ñu toog rek toll na fii ak jumaa ja wala lu ko sut ci njaareem mu mel ne dañoo dëpp kàdduy sëriñ bi ci noppam muy dégg li sëñ bi wax loolu yéem ko boobu ne kii daal kenn xamul lu mu doon fekk boobu mi ngi jëm si ci sëñ bi bi mu agsee ci jataay bi rek sëñ bi da koo daal di joxar bi baaraamam daal ne ko cëy la ma doon cëy la ma doon cëy la ma doon sa baaraam bii de boo ko doon xotti ba fa gën a sori ci penku nga dale ko fa bëgg fa gën a sori ci soow du tax nga xam la ma doon cëy la ma doon nga xam ne moom moom ci jëm boppam du daay yéem ci boppam loolu manees na cee wax yu bare bare daane yéemu ci boppam dégg dégg naa ci sëñ Moor may Maymunatu Mbàkke yàlla ko yàlla dolli ay leer ku sàmm woon te baax mu ne sëñ yi boo ko nettali ne ko sëñ bi mas nañ koo bett mu jàpp ba noppi di jëfandikoo waat njàpp njàpp itam di ko barkeeloo daane ko waaye moom loo ko fekk mu di ko def dana la ko leeral daane ko bi ñu ko fekkee mu jàpp ba noppi di ko di ko di ko barkeeloo mu wax ñooña ne leen kaay leen ma wax leen li ma ci jublu daan leen dama bëggoon jëmm ji di ñaar jenn ji di jaamu moroom ci ñàkk gin loolu ñàkk am nag moo tax may barkeelu ci sama bopp kon ku ku ku doon wormaal boppam la doon koo xam ne it jëmmam bu daa dox sëñ bi doxin wu gaaw la daa dox waaye gaawaayu dox bi du ko yóbbe ci ak ñàkk personnalité lu ga dox bi gaaw gaaw du jàdd du jéng day jubal fa mu jëm rek dawul geesu it am na ko doon melal ci ko ko mas a fekk muy dox waaye dadaa wax ne sëñ bi buy dox day mel ne lu tegu ci kaw dara luy dem ndax jubub doxinam jub yi du doxinam sëriñ Habib Mbàkke imaam daana wax ne mas nañ koo laaj ne ko yéen ñi daa gis sëñ bi nu ngeen ko gisee mu ne boo ko masaana gis day mel ne mi ngi nii te nekku fi nee na sëñ bi bu daa jël sax bu daa jël ab kaas wala mu di ko teg da nga xam ne am na keneen kuy jël waaye du moom am na keneen kuy def daal ci ginnaawam waaye du moom defin woowu feeñoon na ci moom melokaan woowu bu daa dox it du geesu sëñ Tuubaa dawut geesu sëñ Habib nee na bi mu tàmbalee wax wajjahtu wajhiya la bàyyee geesu bi mu tàmbalee wax wajjahtu kulliya la bàyyee wëlbatiku wajjatu wajhiya day day mel ni rek day màndargaal ne yàlla jëmale naa la sama kanam maanaam jëm naa ci yow jëmale googu mu jëmale kanamam boroomam nag saa bu jógee su geesoo geestu googu day mel ni kon daawan ginnaaw yàlla moom loolu ak mooy yàlla la ci moom moo tax du geestu sëñ bi daw toog ñun ni ñuy toogee nga xam ne dangay ngay bëgg a toog toog bëgg a jóg dem sëñ bi buy toog ci ndigal lay toog buy jóg ci ndigal lay jóg mujj na nee na saa buy jóg day am lu naan ko irji ila rabbik jógal jëm ci sa borom nga xam ne su xasee jóg su dëppaatee day mel ne daa jëmoon ci yàlla ba noppi dëppaat moom noonu la koy fiire moo tax mujj na kër gi bari ay bunt loo yoo xam ne looloo ko sabab bu nee bëreet su doon lu mel ne lii nga xam ne amut bunt du tax mu dëpp day taxaw rek naan ana ko toll fii ana ko toll fii ku ñuy wax sëñ kale saadix mujj na moo yor ab daggukaay ak martu ak yooyu bu sëñ bi ne ana ko toll fii rek mu xar daal di dagg seng wi ñot ko ba mu sori sëñ bi jàll mu doog a mu doog a mu doog defar ko ab bunt su masaa soxla ci ginnaaw jamono yi nga xam ne du geesu du tàmbaleegut ñàkk walbatiku bi bala moo bu amee soxla ci ginnaaw day taxaw bu jëmm jépp ne tekk mu doog ne wëlbét loolu danaa ci nettali xissa boo xam ne dana duggaale ci biir xaside yi màggu xaside yi maa ngi ko déggee ci sëriñ Saalihu Lo moom moo ko dund sëriñ Saalihu Lo nee na bi ñu tabax jumaay njaareem ji moo ku ñu wax moor seen dañ doon bu kiy xoccee maanaam bu kii tojee xeer yi kii day yanu yóbbu kee moom ma nga toog ca jal di toj waaye kii day yanu yóbbu nee na ñoom ñaar nag ñuy diwoo ci ba xasida nee na man bu may toj maa ngi naan naha ilal baytil xaraam li kay yasira san xidaam mustadrajun min al anaam lil jahli bil muasami nee na fu moor mën a nekk dana ma tontu ne ma wallahu jalla faala bi jaysihi ma faala bi jaahihi wa jaala kaydahumu fil yahami nee na ñuy def noonu tubaab ba ñëw fa nee na di wax ak moor moor dégg ko mu jàpp ne da koo ñàkke teggin daal di koy jàpp yóbbu sëñ Saliou Lo bi mu koy nettali daa ne bàyyi xiisaa jénn ñëw ñu wax ko ko mu dem ca ngir lijjanti ko ndax moom la sëñ bi dénkoon loola nee na ba mu demee mu ne ko duma leen bàyyi duma ko bàyyi ndax seen sëriñ bi da leen a yaru su leen yaroon su ma ñëwee dangeen ngeen bàyyi li ma dañuy bàyyi li ma li ñuy def nuyu ma sëñ Saliou Lo ci bi mu koy nettali da ne ki yar ñëpp mu naan dañoo yaru <laughs> sëñ saay sëñ xiisaa jenn daal ci ànd ko tàngoor ñëw wax ko sëñ Mor Absolo sëñ moo Mor Absa dem wax ko sëñ bi sëñ bi ne bu gën takku takkusaan jotee na ma demukaay bi fekk ci buntu Mbàkke jaxate sëñ bi amoon na oto demukaay bi la sëñ bi di wax oto oto boobu sëñ ma bañ ñi njaay ko sëñ bi dénkoon moo yoroon responsabilité oto bi moo ko daa moo ko daa saytu sëñ Habibu sax nee na ñëw na fa yoon woo xam ne bi oto bii dellu ndaam moo ko yóbbaale oto baa ko yóbbaale bi waxtu woo jotee sëñ bi dugg ci oto bi te sëñ bi gis nga oto boobu bi mu ci ñëw ñëw xuru mbàkke it boobu lim jaayante woon nga xam ne du mooy xibla oto boobu bi mu ciy ñëw it oto bi daa dàkk xibla ba agsi waaye sëñ bi muy xob la ci tooge ni <laughs> daa mujj daa bokkoon ci jaayante gi bu toogee du mooy xibla <laughs> moo taxoon keroog ba mu ca duggee ànd ak sëñ Mor Absa Lo ñi muy àndal ñëpp bañ agsi ci tubaab bi bi sëñ bi wàccee da koo séen rek daal di tiit daw mujj na ñoom dañoo ragal sëñ bi bi mu dawee ku ñu wax moor Diop moo fa nekkoon daal di raam ñëw nuyu sëñ bi sëñ bi daal ne ana ki doon woote ñu ne cell sëñ Saaliw Lo ne sëñ waxaat ko ñu ne cell mu waxaat ko Mor Mor moomu daal ne ko moom de dalaa seen daw sëñ bi ne acam man de xaw ma woo koo xam ne boo ko séenee daw lu muy jariñ daane waaye ana doon woote waxuñu ko dara ñu fekk wax na moor moom ne ko bàyyil moor seen mu mu dem sëñ bi daal ànd ak ñoom wëlbatiku waaye daa dox tuuti ne tekk taxaw ba jëmm jëpp dal mu daal ne wëlbét jàkkaarloo waat moor moomu daa ne ko yow sax foo dëkk ci réew mi mu ne ko waalo sëñ bi ne ko seen ndox moom yéen a ko xam ba xam fa ngeen koy yem am moo leen xam ba xam fam leen yem mooy dex ga ñu ne ko mu ne ko hii loolu de ndox ndox moom mooy njukku kenn ñemewu ko ku ca tàbbi faatu sëñ bi ne ko seen waa jooju bu ñëwee nee leen ko may njukku waaw man tamit ku ma laal rek <laughs> bi mu ñëwee daal di woo sëñ Saaliw loo ñoom ñooñu ne leen wax leen rek nu ngeen bëgg ma def jëflante kook ñoom boobu fekk na sëñ Isaa tàng na daane ko moom koy jële leen fi ñoom ñëpp rek xàllay leen maam Cheikh Anta daal ko xisaa mii de li muy wax fi mu ne xamu ci dara ndax xaala ko jàpp ñii li ñuy jariñoo lépp ci ñoom lay bàyyi ko suñ daan daal di wax suñ insa ne ko li Sidi Moxtaar wax de lu la daal di koy xëcc jàpp mu xëcc ko ne ko lii nga sol di sutur lu jaamu yàlla fu mu bàyyi ko mu ne ko ci ñoom mu ne ko dugub ji weex ji ngeen di jëfandikoo boobu ceeb bi la ci jublu mu ne ko ci ñoom mu fëgg seng wi kaadar bi la ko daa wax daal ne kaadar bi fu mu bàyyi ko mu ne ko ci ñoom sëñ bi ne kon li leen naqari ci ñoom da ngeen koy muñe li leen neex ci ñoom daane Saaliw Lo ana lu mu leen fekkoon ngeen di ko def sëñ Saaliw Lo nettali ko daane ko daa fekk maak moor bu ma xoccee dama naan naxaa ilal baytil xaram li kay yathiira sanhidaam musadrajun min al anaam lil jahli bil maasami fu moor mën a nekk tontu ma ne ma wallahu jalla alaa bi jaysihi ma faala bi jaahi wa jaala kaydahum fi liyahami daa daaneel kàddoom rek sëñ bi daal di yëmmu ni bismillah daane foofu mu ne day looloo ko taxoon a jóg waaye daa amul seen kàttan ñoo ñooñee jëloon seeni ngànnaay ne dañuy toji kaaba ga pas-pas boobee la amoon tey jii waaye daa amul kàttan ga daane waaye xam ngeen lu ma leen ci fayee yéen ñu doon jàng xasida yooyu ñu ne ko déedéet mu ne bis ñi ki tey tofal naa leen maqaamam ña doon tabax kaaba ga moom nag wuutal naa ko bàkkaarum ña doon jéem a toj kaaba ga ne wax wax ja daal di fay yem loolu kon melokaanu sëñ bi loolu ci la bokkoon bokkoon na it ci ay melokaanam moom Sëñ Tuubaa fonk ak set li ñuy tooñe murid di léegi liy nuru ak bëgg àdduna mooy fonk yére Sëñ Tuubaa noonu la ci meloon daa fonkoon ak set jëmm ji moo njëkkoon a set moom sëriñ bi am am na ci yoo xam ne mën a succee àgg waaye jëmm ji boo ko daa xool yaram wi day mel ne yaa ngi dégg Sëñ Musaa Ka naan yaram waa gën a rattax mel ne jaali mbooloo maam yaram wi dafa setoon ba mel na lu rattax te dafa fonkoon di jàpp daf ko fonkoon moom sëriñ bi sikkin bi gudd lool ba day day day day jege maanaam baat bi ba noppi mu am ay mustaas yu jekk itam boole ci da daa sol it mbaxana koppati sëñ bi daana ko sol kaala it lu ci ëpp ñetti kaala la daan kaala waaye kaala gi ci digg bi da ko daan dugalu li ñuy wax da daan tegaat beneen kii nga xam ne day mel ne lu xaw a diis noonu la ko daa def daana teg it ay kaamil ci bopp bi doo koo kaala ñetti kaamil daana ko kaala waale moom sëriñ bi daana watu it lu bari waaye léeg-léeg daana watu ci saase daal di sëqaat ci saase sëñ Mbàkke Jaxate teg na ci bëtam wat na sëñ bi ñëwaat fekk karaw gi di di di di lang fekk karaw gi di lang njëlbeen gi it la ëppoon lu mu daa wattu la ëppoon lu mu daa sëqal boppam mujj gi nag daa wattu lu bari waaye njëlbeen nga am na bis boo xam ne Cheikh Ibra Fall la sëñ bi booleeg sëñ Fall lu aw ñam ne leen bu ngeen demee ngeen jëfandikoo bi ñëwee Cheikh Ibra Fall ne ko xaj du bokk ak boroom jëfandiwul ba noppi daal toog ne suñ Fallu di jëfandiku ba yàgg mu siggi xool ko daal ne ko waa sa waa ji moom loo xam ci moom ci lu soppi ko ci moom boobu sëñ bi la koy junj Seeru Faal ne ko xawuma ci moom lu soppi ko lu dul ñaar Mbàkke Kajoor ja ba léegi xawma ci moom lu soppi lu dul ñaar ne ko gis naa ne daal bopp bi da ko daal sëqal bu njëkk waaye léegi damaa gis ne da koy wat kaala gi bu njëkk ci ndigg li la daa nekk te léegi ma gis ma koy def ci bopp bi ne ko ñaar yooyu laa gis ci lu soppi ko ci moom fi muy daaneele kàddoom sëñ bi daal di agsi dal ne Ibra Fall daa jëfandiku wut sëñ Fall ne ko moom de wax naa ko bisimilah waaye nee na nangam nangam sëñ bi ne ci Ibra Fall moom de Mbàkke Kajoor ji ba léegi soppiku wut <laughs> nga xam ne daal di koy daal di koy tontuwaale <laughs> kon loolu bokkoon na ci ay melokaanam doonoon it koo xam ne àggoon na ci julli gu jot mu sol mbubb mu yees laataa mu koy def la mu njëkk a def mooy julli gu jot day sol mbubb mu fóot fóot mu yees ay yéreem it daanañ ko tàpp bu doon léegi mooy paase waaye dawuñ ko gome dawuñ ko daakaane daal daanañ ko nag tàpp ba mel ni war a mel daana sol lu weex lu bari waaye daana sol it lu dul lu weex daana sol baxa daana sol it dara sëñ bi daana sol dara lu ëpp ci lim daan sol it lu dul lu bàyyi ko faneen lu ñuy ñaw lay doon ci loxo moo ko daa dañ ko daan ñaw nga xam ne am na ñoo xam ne loolu lañ daan def mujjoon na sax ay machine am ci biir kër gi waaye lu ci ëpp moom ñaw loxo lañu ko daa def daana tegale ay yére mooy li ma wax léegi ñaari melo yëpp daje woon ci moom sëñ bi li li ñëpp loo xam ne yombul mooy amub tàngoor ba noppi amub sedd ñaar yooyu dañoo daje ci moom moo tax sëñ bi da daa tegale ba noppi taal ci wet gi ngir jaaru ba noppi boole kook ñu di ko ëpp ñu di ko ëpp nga xam ne melo yooyu dafa daje woon ci moom day tegale mattum jalobaan bi dañ ko daa dagg rattaxal ko ba mu rattax ñu koy taal sëñ bi di ci di mel ne da ciy jaaro waaye téewut yi daa amoon tàngoor woo xam ne téewut dañ koy upp uppkat yi fu ñu toll ñu ngi upp am na lu ñu tudd lu ñu wutoon sax lu ñuy wax ab pancarte boo xam ne mujj na da ngay jàpp toll ca ginnaaw di xëcc muy upp noonu la noonu la meloon yéeri yooyu ni mu ko daa defee mooy bu waxtu julli jotee bu ñëwee néeg bi néeg bi néegub jàkka ji ci lay jaar fekk nañu tegal ko fa yére yu yees yi luñ ñaw ba mu yees ñu teg ko fa tegale fa biteelu sikki sikki gerlin bi na la Sëñ Tuubaa daa jëfandikoo keroog maa ngi dégg kuy wax ne eh, sëñ bi moo ci moo ci client bi gën a mag bari nañu saxal ne sëñ bi at mi mu gane àdduna ci la usine boobu ci lañ tàmbalee liggéey société boobu <laughs> nga xam ne day mel ne lépp yàlla yàlla koo tànnal gis nga coppi xudar yi mu daa jëfandikoo sax maanaam bi bis la woo kenn jox ko ak njëg ñenn ñu ne ñii mu ne leen jëm leen nii ñii jëm leen nii ñii jëm leen ku ne mu ne la loo ci gis na ko jënd bañ demee ba ñëw dañ leen lii mooy li ci desoon ci kaw suuf te booba la usine ba daal di tëj <laughs> nga xam ne ku ko masaa indi sax di ci ñaanu da koy jël jox la baneen di ko jël te gis nga ñi ko doon defar xamuñu lu tax ñu tudde ko xudar am na ku ko sëñ bi mas a jël ci moom ne ko kopp yii maa ko moom ne ko Seydina Xudar bi ma nekkee ci tukkib géej gi dama fa gane si woon te ba muy ñëw lii la ma indi loon sëri ca <laughs> gis nga ko kon lépp lu boromam da koo tànn melokaan yooyu bu ñëwaa ci néeg bi ci lay yeesal yére yooyu bàyyi fa yére am soloon ca julli gee sotti ko biteelu sikki bi nga xam ne bis bu set biteelu sikki juróomi yoon dina ko sotti ko noonu la meloon julli it bu ko daa def lu ci ëpp gaa ñi dana am lu dox seen digganteek moom dawul lal dara it ci suuf buy julli ci suuf si jonjool ku fonkoon toogaayu suuf la jàkka ji it ñu bari dawuñ ci sawar ndax dafa bari woon ay matt ak i fel te buy taw ndox mi mën naa wal ba ñëw fi sëñ bi nekk bu fekkente ne jamonoy nawet la gaa ñi buñ tollee ci ginnaaw nit loxoy sëñ bi di tàpp tàppee ci ndox mi dañ koy dégg buy sujjóot da ngay dégg loxo yi di dal ci ndox mi tàpp tàpp waaye du tax mu lal dara moom noonu la noonu la noonu la meloon. doonoon it koo xam ne yére yooyu waxoon na ne suñ borom defaloon na ko ci tawféq bi mu nekkee ci tukki géej gi dadaa wax ne dafa gisoon tubaab yi mas ne mbaa du ngeen defee na damay yàq ñu ne ko xam nañ ne doo yàq mu ne lii may def saabu julli jotee ma sol mbubb mu yees daal ne bi ma nekkee ci tukki géej gi tubaab yi dama daa gis ñuy am ndima yu mel nii di ko dog dog yu tumuranke mooy di ko ñaw ñaw yu tumuranke ba noppi di ci mooy yàlla ma amoon am ko di ci jaamu sama borom te booba mu tëma bi ma ñëwee ba fii sama borom jàppandalal ma ko moo tax ma koy jëfandikoo nii ngir jublu cee sant sama borom waaye xam ngeen lu ma ci defal ñu ne ko déedéet mu ne menn mu moo ci sol julli ci sama borom defal na ma ci tuyaabay tubaab bi yëpp bu jaamu woon yàlla nga xam ne kon mbubum Sëñ Tuubaa rek dara daraja la ju kawe kawe léppam daraja la am na coo xam ne neexuta neexuta wax kon meloo Sëñ Tuubaa noonu la bare woon yërmande it yërmande sëriñ bi ak sutura Sëñ Tuubaa kersa gi ak yërmande gi ak sutura gi dafa yéeme woon fi ne sëñ bi xool nit jàkk ngir bari kersa bu la daa xool day mel ne rek kuy lamsal bu la mënta ñàkk xool day mel ne rek kuy lamsal lu dul loolu day sëgg du siggi ci kaamil bi rek wala li mu yor téere bi mu yor rek lay xool su yorul ab téere nga xam ne kurus la yor fa muy sujjóot lay xool waaye du du du du xoole ni ñu ni ñu baaxoo def waaye mbooloo mi nag lu ñu bari bari saa boo siggee da ngay defee ne yow rek lay xool saa boo siggee seeni bët daje moom dangay defe ne yow rekk lay xool mu doonoon ko woyof maanaam ak nite nii sëñ Tuubaa da ci daan jëflante ak nite mën naa cee tudd ku mel ne sëñ Mor sëñ Mor Mbàkke doj ku sëñ Tuubaa daan binduloo la waaye sëñ bi daana lépp ca bitig ba ba noppi tayle ko fa tayle ko fa nga xam ne sëñ bi dawul jënd buy jënd dawul jënd benn ñaar yi maanaam bu daa jënd dara du seen ba lay jënd bu dee kees kees ga lépp lay jënd waaye du jënd ay benn ñaar di ko ber te kër gi day bari alal waaye am na ci yoo xam ne sëñ bi du ko jëfandikoo maanaam kër gi dana bari alal ba alal ji jaaxal nit ñi te sëñ bi léeg-léeg day soxla dara di ko lebe sëñ moor moom nag bokk na ci ñi sëñ bi daa tayle ak ñeneen ak ñeneen waaye ci ni muy jëflantee am na bi sëñ bi kim daan yónni ne ko boo demee yebal fa yóbbul moor Mbàkke moom ñu tayle ko bi sëñ bi ne ko moor Mbàkke yow kooku la daal yóbbu yóbbu ko moom ñu tayle ko tey mas na leen a woo ne leen bu ma leen masaan tayle ci naar bi nu mu leen def ñu ne ko danañu jox reer de waaye bu noppee dañuy tëj sëñ bi ne leen tëjam googu de musal na leen ci tëjuk àddina bu àllaaxira tëjuk àddina gu àllaaxira jëflante bu rafet boobu àggoon na ci sëñ Tuuba dalaa jàkkaarloo ku koy nax mu xam ko ba noppi mel ne ku tàbbi ca nax ya mel ne ku tàbbi ca nax ya te loolu jëf jikko ju rafet moo tax maa ngi ci joxe misaal barki démb am na koo xam ne danaa njabar sëñ waa njabar xam naa ci ñaar <laughs> maanaam kenn ki bi muy mag ñi sax seen dox bu gaaw bi loolu dina ci feeñ am na ci koo xam ne bi muy doog a jébbalu da doon yedd gaa yi bi ñu ñuy tudd sëñ bi di tudd yenn góor yàlla yi maa leen sëñ bi nag baax na waaye nag jiili moom <laughs> sëñ Abdou Khadir Jilaani xam mag dañ ko fonkoon lool <laughs> ndax day jàmbaar te ni ko sëñ bi daa tuddee maa ne kooku nag moom sëñ bi moom mënu koo dab nag <laughs> boobu nag jébbalu na sax moom moom kii may wax nii jébbalu gu xoromu la jébbalu moom bi muy jébbalu sëñ bi nee na bi mu ñëwee njaareem dadaa dadaa wër moom penc moom dem bu bëggee jébbalu daa am mbus bu yoroon goo xam ne xeetu sobe da caa nekk daa am lu ca nekk daal loo xam ne day fexe ba suul ko fi ki mu bëgg a jébb lu nekk su ci jullee juróomi waxtu yëpp taxamu ko mu sulli ko delloo bi mu koy def ba ñëw njëriñ nee na njëriñ ab yoor yoor la fa bi ñëwee laajte jàkkee sëñ bi ñu ko ko mu teel a dem dawal julli fa yoor yoor daal di gaaw mënta àgg sax fi suñ bi jullee waaye daa dugal loxoom rek ba fi mën a jot mu daal di koy suul génn nekk ci yiteem ba tisbaar jot mu teel a ñëw waaye xam nga Sëñ Tuubaa mosaan dugg ci jàkka ji rek danaan bisimilah ñu liqaam danaan bisimilah rek ñu ñu julli bu masaa noppi day daal di bu nëmmuta wax ak gaañi day daal di noppi rek demaat nga xam dafa yàgg bu nammee wax ak gaañi nag day ubbi bunt bu ndaw bi faneetar bi keroog nag bi waa ji ñëwee teel a bokk ci sàppe yi sëñ bi daa dugg rek daal di koy fettasu waxul bisimilah daa dugg rek daal di koy fettu ne ko eh waaye ñëwal sulli sa li ngi fi suul mu daal di koy sulli bi mu demee bay bëgg a wax sëñ bi daal ne ñu daal di nodd ñu daal di ñu julli ba nopp mu dandu si ne ko yow daal yaamatu sëriñ ndax sama mbuus gi nangam ak nangam sëñ bi ne ko suturaal leen nga xam ne bàyyiwu ko mu wax gis nga sutura si <laughs> kooku noonu xam naa turam gin jamono yooyu moo doon wax loolu ne sëñ bi nag li muy baax baax mënta àgg ci diw ak diwum ca fajar ga te day doog a jébbalu ba mu xëyee la day la woowaat gaañ ni leen liñ doon waxtaanee biig day sama borom muril na ma ko waaw moom kooku daane ne mboolem ñi doon tudd biig gis naa leen démb ñuy siyaare ci sëñ bi ñaar ñoo ñu ma ci doon wax nag ñoom moom xawma ba xam sol nañu dàllam déet waaye bu ñu ko solee fañ ko summee sori na <laughs> bi ñu dugg ci péncum sëñ bi solu ñuy dàll waaw wax leen ci yeneen wax yu wax yu wax yu yéeme yéeme kon loolu li ma ci jublu mooy wane meloo sëriñ bi ci sutura am na koo xam ne daa ñëw njabar sëñ bi def ko ci musallas def yam yi def yépp ngir bëgg sëñ bi jox ko xaalis bi mu ñëwee ci jataay bi nee na mbooloo maa ngi bari lool nee na mu ñëw sëñ Tuubaa ku ko nuyu rek teg sëñ bi dawul nangu xaalis ci loxoom ñaari yoon lañ mas a gis sëñ Tuubaa tàllal loxoom ñu teg ci xaalis benn bi sëñ Basiiroo ko jox benn bi sëriñ Saalih ñaari ñooñu lañ mas a gis mu tàllal loxoom ñu teg ci xaalis sëñ Saalih boobu dalagut jàng sax bi ñu jox sëñ Tuubaa daa jaar ci kër mbokkam yooyu jaxate jaxate yi ñu jox ko fa aw ñaar mu ñëw ci bunt ci kër jigéen ñi tasante sëñ bi ubbee bunt bi ubbee bunt bi ci kër jigéen ñi mu daal di koy jox sëñ bi tàllal mu teg ci ñaar dërëm sëñ bi ne ko loo jublu mu ne ko hàddiya la sëñ Basiiru bi ko sëñ bi jaay jaay Saalum la damay bañ mu gudd am na sax yéeme sëñ mas nañ ko mas nañ bind nii ñu koy jox àddee ji boo ñëwee da ngay teg rek mu xool la daal di koy xool waaye du ko jël di bind di bind ba yàgg nag këyit yi di naaw xam suñ daa bind weer ndax gaaw yitu mbindam moo tax daw ko may muy xaar mu wow muy wëlbati day bind nag di weer bu baree ba bari mu tàmbaliwaat ci bu njëkk ba di wëlbati noonu la daa def bin kayit gi di naaw nag sëñ bi daal di gaaw ne bërit sëq ci xaalis bi moom di di di ko dugal ci permi <laughs> fi fi ngelaw lay jaar bi muy toogaat am ko muuñ daal di muuñ sëñ ne ko ana ree mu ne ko dañ cee wute xalaat rek maag yow suñ ne ko ñoo ci bokk benn xalaat daane ko lu ci waay am lu mu bari bari fatte bunt nga koy doole te ñun li ñuy liggéey rasulullah lu cay jaar di ko yàq gisuñu bunt bu nu gën a jaral fatt ko loolu loolu ko ci tont gis nga dégg sëñ kooku nee na jataay bi bu ñëwee moom mi njawaroon sëñ bi luñ jox sëñ bi rek mu jox ma ko nee ma ma jàpp ne yëf yaa jàpp <laughs> nee na bi ma demee bay jóg nag ak addiye ji su ñu ne ma diw loolu ñu la jox kat ñoo ko def ca araf ya nga doon def ngir nun <laughs> nee na waa jotaay bi gën maa fonk ngir jàpp ne dama ko doon jàngal kaamil wala daam lu ma doon bind loo wala lu mel noonu waaye nee na man xam naa moom xam na waaye wéeru ma <laughs> bu la masaara gis ngay def lu dul noonu yow doo ko gis bu la njëkkee gis yow doo ko gis ndax da lay nëbbutu xoolal loolu ñun ñu bari ca nun boo gisoon sa ki ngay yar muy def loolu dara bu lay nëbbutu yow yaa koy feeñu sëñ Tuubaa nag moom moo lay nëbbutu moom bu la nëbbutoo ba loola jàll mu woote aw waxtaan di waare nag te buy waare du njëkkee ca loola ndax bu ca njëkkee nga xam ne yaa tax muy wax day njëkke ci yeneen di wax ci leneen ba agsi ca loola waare waale ca nga xamaale ci sa bopp waaye du du la weer lu dul ne nag loo xam ne weer gi mooy tax bàkkaar bi dañ ci yow am na ku sëñ bi mas a wax ne ko alal ji may laaj nee na yaa ko jël mu weddi ko sëñ bi tibb suuf daal di tari sànni ko ko cër yëpp tàmbalee wax cër yëpp tàmbalee wax sëñ bi daal di koy wan ginnaaw dem julli ci nga xam ne kon kooku li tax mu def ko loolu loolu mooy mbugalam moo tax loolu mooy mbugalam melokaan yooyu la meloon am na kilifa goo xam ne bi muy doog bi mu nekkee ci sëñ bi nee na moom moo koy nettalee boppam daa bokkoon ci ñi daa jël alali sëriñ bi nee benn bés damaa ñëw di randal maanaam li ñuy wax sàcc ci xaalis xam suñ tubaa xaalisam dawuñ ko denc boo nekkee ci kër gi mën nga koy romb nii bu fekkee ci xej yi nga duñ ko denc duñ ko wàññi itam dañ ko daa paqueté it feggu yi lañ daa jël def ko ci nii ba mu ba mu bari ñu takk ko ak leskit bàyyi ko noonu waaye duñ ko duñ ko duñ ko kii dañ koy jal rek nee na nag am foo xam ne ab jal dafaa nekk moo benn bëkk néeg bu ndaw ne ko tollu ma fii maa ngi dem ci ginnaaw lu ma la jël rek ci ci paquet xaalis nga tegal ma noonu nee na ba ma demee jël ko bu njëkk bi rek sëñ bi agsi kooku bi mu gisee sëñ bi rek daal daw dem sëñ bi taxaw fa nee na ma koy jël sëñ bi nee bu ma ko jël mu jël tegal ma nee ma jël ko ba ci bu mujj bi ma ne ko taxawal foofu nag néeg ma <laughs> nee lépp maa ngi jàpp ne kee laay waxal nee na sëñ bi taxaw di ma xaar nee bi ma wëlbatikoo fekk ko mi moom xawmatuma lu may wax waaye nee na moo ma gàttandu sama aw lay dimbale ma bi ma nee yàcc rek mu ne ma xanaa da ko doon tuxale fii di ko yóbbu ci beneen barab ngir saytu ko <laughs> ne ma ne ko waaw Mbàkke <laughs> bu ko daa nettali moom moom bu ko daa nettali dadaa wax ne sëñ bi pëseef bi moo tax mu taxaw fa néeg ma ndax baatu ndigal bi ma ko jox ne ko taxawal foofu néeg ma waaye nee na boo ma ko waxutoon loolu du ko fa fekk <laughs> waaw moom moomu moo nettali ne am na bis boo xam ne maanaam xiif bi da koo jàpp xay na mu jël ci tànneer ma jeeg resin boobu tuba yi ñu sol day am ak ñoor ci suuf mu dem nag ci pekk bi pekk bi mooy magasin bi jël ci tàndarma jeeg rese ji lu bari def ci def ci tubéy ji nga xam ne ko sotti noonu rek ci biir bi mu génnee rek sëñ bi dajeeg moom <laughs> ku safoon sëñ bi la nag ku sëñ bi bëggoon la ndeysaan bi mu génnee rek dajeeg sëñ bi sëñ bi téye ko di wax ak moom boo daam lu namoon nee na boobu naaj bi njaareem gis ngeen ko ba tey suuf si ni mel naaj waa ngi tàng jër te kenn du sol dàll ne sëñ bi téyem rek di wax nee may keppar ci sama digg sa ñaari tànk yi far ñoor gi dagg tàng tàndar ma jeeg resin yi ci tàmbalee wadd ci suuf tuwe yi nee sëñ bi hmm, lii moom lu mu doon ne ma ne ko daa bokk ci say may de bu naaju tàngee sa taalibe yi tàndarma ak day génn ci seen tuba yi <laughs> waaye neen li ci yéeme sëñ bi ci saase saase daa tàmbali di sant suñu borom ci may googu waaw ah, ci may googu neen dajee tàmbali di sant yàlla naan hmm, loolu di sant daaj sama borom lool nga xam ne léeg-léeg mu ñëwaat sëñ bi net ne ko nettaliwaat ma may ga <laughs> nettaliwaat ma may ga xoola sutura soosu nga xam ne kooku bala koo sëñ bee bàyyi gis nga mu dem ba di ko nettaliwaat moom mu dem ba di ko nettaliwaat maanaam sëñ bi ñooñu dañ ko daa bëgg ba mujj sëñ bee leen gënal seen bopp moo leen gënal seen i waajur am na ñoo xam ne dem nañ ba tàqalikook sëñ bi faatoo leen ko gënal manees na cee tudd sëñ Basiiru Siise gis nga bi ñu ko bëggee tàqaleeg sëñ bi yóbbu ko faneen ngir mu sol soldaar daa wax sëñ bi ne ko liggéeyal keneen ku dul yow faat faatoo ma ko gënal sëñ bi ne ko dëgg la ci yow mu ne ko waaw sëñ bi ne ko baax na man ngaa dem ba mu demee toog di àggale nuuru daare ni ba mu doon dindi fa la faatu nga xam ci sensé nuuru daare ni boobu sëñ bi da koo xaaj ci digg bi ne nañ ko ko dencaale biñ ko dencee ab diir sëñ bi daa daa dafa dafa ree daal ne Basiiru Siise jommal nam gaa ñi ko doon laaj ci biir ci bàmmeelam ndax bi ñëwee ba ne ko kuy sa borom dañ leen ndax beneen borom bu dul yàlla daa dañoo tiit ba daw <laughs> duñ leen tontoo waaw sëñ bi daan wax ne digganteem ak àjjana dafa mel ne génne ci néeg bi tàbbi ca bee sëñ mët jee mbàkke bis bi ko sëñ bi woowee ne ko gërëm naa la bis ñi ki tey man ngaa dellu ci say bokk yàlla gërëm na la boog la ko wax yonente bi gërëm na la sallallahu alayhi wa sallam man ngaa dellu bis boobu yépp da ko yendoo jooy bañ mujj woo ko sëñ bi yëg ko woolu ko ne ko lu xew laaj ko ko mu ne ko bu ma xamoon ne sàkk ngërëmul ñaar ñooñu damay tàqaleeg yow dama ko dul sàkku ba di ko am nga xam ne gis nga fi ñu tolloon ñoom ci bëgg sëriñ bi daw nangoo tàqali ko ak moom waaye loolu mbaaxuk sëriñ bi moo ko moo ko moo ko waraloon sëñ Tuubaa daana leen fàtteloo ab xiif gis nga ñun dañuy jàng xasida ba boole ko di xiif gis nga ñoom dañ daan xiif ba mën naa ci tudd ñoo xam ne daa leen xiif bay jooy seen ronkoñ di génn te booba maanaam kër gi ñaxnaat la ñuy jëfandikoo ñaxnaat te ñaxnaat gi genn kudd gi génn kudd juróom-ñetti góor a koy bokk genn kudd gi kudd lu si genn kudd gi kudd cin yi waaw genn kudd gi juróom-ñetti góor a koy bokk buñ noppee kenn ku ne genn kubéeru satal ak ndox ngay am te la gën a suufe ca la ñuy liggéey la gën a yomb mooy bind kaamil nga xam ne bu la sëñ bi ne bindal ma kaamil ñëpp dañ lay ñëwee xam ne yaa ngi la ji yow kon lan moo gënoon diis ci li ñuy def ci jamono yooyu nga xam ne da ngay gis ku xiif ba àgg ci di di di jooy te booba njabootam gi ba ci sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou ci lañ woon jamono yooyu bu xiif bi taree am na bi sax sëñ bi loolu ñuy jëfandikoo benn bi sëñ bi génn ne nañ wàññi njël li <laughs> daan ragal njël nag taxut ma di ko wax ndax gànnaar gépp mën naa leen dundal ci sama loxo su tuuti si daane waaye daa am reeri leer yu fi ñëw yoo xam ne ñu fekk nga regg ci reer bi duñu la jox ca yooya duñ la jox ca yooya waaye bu xiif masaana tar ba tar sëñ bi day génn rek toog ñu di ko xool suñ koy xool seeni ruu di dund bañ fàtte xiif bi nga xam ne bu sëñ bi jóg ñoom ñëpp dañu suur <laughs> dañuy fàtte ne xiifoon nañ loolu ak bëgg bëgg bëgg sëñ Tuubaa la moo ko waralaan kon jëmm la woon ju ju tedd ju baax buñ ko toppee mën naa mën naa gudd bis bi ñuy waajal nag bis bi ñuy waajal xalam ci sëñ Tuubaa it mat na ko xalam ci sëriñ bi ndax li may faral di wax du ak sant yàlla gu ñu sëñ bi digal ñun ñu sant yàlla déedéet sëñ bi digalu nu ñu sant yàlla dañoo digal ñu santale ko yàlla gis nga sëñ waxam daa mat a dégg maanaam moom mooy sant yàlla digal nu nu ko yàlla kon benn sens lañ am tey mooy sunu sant dugg ci santu Sëriñ Tuubaa te cant googu moom yàlla da koy nangu nangu na ko ba noppi fi ne at mi yëpp benn yoon nga ci am sa cant mën a dugg ci biir cantu sëriñ bi ndax loolu ba noppi mu tegu ci kaw ndigal nga xam ne yeneen yeneen nga ci amee waaye li ci yéeme mooy Sëriñ Tuubaa cant gi cant gi maa li mu daj ak ba mu koy daj waxul ne kenn kaay muñ le ma kaay muñ le ma waxul ne kaay toggule ma waxut loolu lépp bi mu noppee ba noppi nag la ne maanaam ngir nga jëfandiku ci xéewal yi ngir nga jëfandiku ci may yàlla yi kaay leen sant le ma sant gi sertalu ma leen ci ngeen di dagg seeni kawar wala ngeen di dagg seeni yaram wala ngeen def dara li ma bëgg mooy li dalee ci ganaar ba ci gëléem ngeen jëf ngeen def ko ba jëfandikoo waat ko wala <laughs> loolu nga xam ne moom ci jëm boppam moom maam sëñ bi ci biir liggéey bi loolu da koo ñàkkoon maanaam moom demoon na ba amul lu muy jëfandikoo sëñ Tuubaa ci biir liggéey bi loolu nag léeg-léeg yi di ko fàttali ko di ko waxtaane ndax li ma bu ñuy waxtaanee jafe-jafe yi daal dikkal sëñ Tuubaa da ngay gis ñoo xam dañuy jàpp ne sëñ bi maanaam rëboo woon daal maanaam xeetu xeet lu ku dawul yëg dara am na ñoo xam jàpp nañ ne natt yi sëñ bi daa amoon baatin boo xam ne nii mooy tax du ko yëg mbiram raw na loolu waaye da ko daa yëg sëñ Habibu nee na am na ko masalaat sëñ Tuubaa bi ñu nekkee njaareem ne ko ndax liñ la daan teg yaa ngi koy yëg signé ko bu ma ko doon toon yëg ñëpp man ko néegum ndakaaru boobu bi ko sëñ bi di nettali benn bi sëñ bay saar nga xam sëñ bu ko daan nettali nee na ngoonuk ajjuma gi mu ñëw Dakar nee na boobu dafa dafa woor bàyyi xel lool bët timis di bëgg jot nee na moom jàpp na ne dañ koy waajalal fu muy jullee ak fu muy fu muy doge ngir dundal sunna si nee na as ngóor ñëw woo ko jaar ci turam da koo sàllaloo ne ko kaay wuyu sëñ bi nee na ma jóg topp ci moom nee na bi ñëwee ba agsi ba ma séen néeg bi muy néeg boo xam ne kenn du ci dugal koo bëgg ci moom jàmm noonu la ko daa waxe nee bi ma gisee néeg bi rek dama tudd yàlla xam ne musiba nar naa am gis ngeen bi ko sëñ bi nettali nee na néeg bi bi ñu ko cay dugal la tax ak rab bu jam ko nee na dañoo bëggoon a nangu kaalaam mboole ceeg bëgg a nangu teqale ko kaamil bi mu yoroon sëñ bi nee na ma gàntal diironte googu ñu koy diironteeg man nag ci lañ ma bëmaxe moo tax ràbb ga daa sar ba ma koy séen mu nee na loolu tax tànkam da koo tegeeg doole bu ko daan nit la nag da daa wax ne waaye saalituma de tànk ba ca des daa fekk si moroom ja mu nekk ca li ci yéeme li ma naan bu sëñ Tuubaa naan ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa sabuta tarat ila jihaadi bil armahi nafsi walakin dabaxani al maahi ñu bari dañ jàpp ne jam-jam yaa tax déedéet lam yi metti metti Sëñ Tuubaa du saalit fi mu ne maanaam du fàttaliku ay mettit yu koy dal nii ba tax muy bëgg a fayu maanaam foofa ca néeg ba lañ njëkk a xañe Sëñ mu teg ab jëxam ci suuf jaamu yàlla ndax timis googu fa la ko fekk te bi mu kàbbaaree di julli mënta rukkoo waxuma laa di sujjóot ñàkk googu mu mën a ñàkk jël ab jëxam teg ko ci suuf te wasjud waqtarib bi nga sujjóotee ngay gën a jege sa borom loolu mooy li nga xam ne moom lay fàttaliku moom <laughs> looloo ko metti waaye doomul ne lañ ko doon jam ak la ko doon la ko doon dal julli gu metti la fa julli goo xam ne ñaari saar yi gën a gudd gis nga sëñ tubaab bi mu xëyee génn bi ñu ko génnee ci néeg boobu tubaab yi liñ koy bañ bañ bañ bañ dem nañ ba xam ne lii ëpp na na sëñ bi ba bi muy dugg ci bato bi tànk yi da doon nàcc nga xam ne dañoo mujj jël ay bandaas bandal ko tànk yi maanaam ñi ko fekk muy dugg ci bato bi yépp gis nañ ne bi muy dugg ci bato bi tànk dañ koo band te teewul deret jaa ngi sotti ko gis nga loolu sëñ mas na koy nett li sëñ bay saar yuuxu ne ko xanaa mbàkke boobu danga ko dawul yég sëñ bi ne ko yéen bu ngeen ko yég benn yoon man dañ koo ful lu ko ëpp laa ko yëg daane ko waaye boobu la ma bëgg rëy la ma bëgg rëy muy jafe-jafe yu mett ba mu ca jógee dugg ci biir bato boobu mu gën a métteeti sëñ bi nee na bato bi may doog a dugg fu baax lañ ma dugal may ma fay nekk di fa tagg rasulullah sallallahu ak di wax wax yu rafet nes tuuti ma jot lu may wane ne nañ ma génne foofu sëñ bi nee na ñu génne ma fa nee na kilifa bata bi moo jot bataaxal bu koy wax loolu sëñ bi nee na ñu génne ma fa dugal andi ma faneen foo xam ne dama fa wéet ba mel ne ab néew ba mel ne ab néew nee na ñu ma fay fekk di ma reetaan ak di ma yéjju di ko xas tumuranke foofu la tàmbalee sëñ bi muy tumuranke gu metti gis nga foofu boo gisee mag ñëpp jooy ba sëñ Tuubaa di ci cité Cheikh Ibra li leen jooyloo mooy sëñ bi bi mu ñëwee ba ñu dugal bagage yi ci biir bato bi am na gaal guñ daa wax ne gaal gaal gu dul laal suuf la gaal gu ndaw la woon sëñ bi dawul nangu mu tege ci suuf dañ ko daa yenu rek biñ ñëwee nag dugal bat di dugal di dugal ci biir bato bi di ci dugal gaal yi ba mu des gaal googa sëñ bi moo génn laat boppam ci biir bato bi ba ñëw ci bunt bi daal ne ana ana ma Samba Fati Bousso keroog moo yenu gaal gi ñu xàllal ko mu dox ba agsi sëñ bi daal di yëkkati loxoom ne ko yan ma gaal gi ñu xam ne tumuraanke ne na dañ ko ko daa yenul te tey moo ko yenul boppam foofu la mag ñëpp jooyee ba ci Cheikh Fall moom la sëñ Tuubaa di junj wa jaahu fi fulkihil mashuni muridahu ay yafatam mamhudi muy lu met ci biir gaal googu lañ ko booleeg nag wi ngay dégg ba léeg nga dégg ñu wax fi ànd ci Ndakaar waaye sëñ Tuubaa li mu nekk lil boppam ci biir gaal gi la gaal googu bi bi ci nekkee nag wi daa tëb am na ñu wax ne sax dafa rëcc rek jëm si ci moom sëñ bi bu ko daan nekk daana wax ne bi muy génn daf koo bett nag wi daf koo bett ndax dañ koo woo rek bi muy génn mi ngi yor ci loxoom alxuraan ji li ci des mu yor ci mbind ak kurusam xalima gi moo tax xasida lu mat a fonk la gis nga xalima gi mu doon bindee xasida yi tegu ko ci suuf da koo ngànk génnewaale ko da koo ŋànk loolu bindkat daana ko def sëñ bi nee na bi ma génnee damaa siggi rek seen damaa dégg am riir nee na ma siggi seen nag wi jëm si sama kaw nee na ma tudd yàlla rek mu naaw mas nañ ko laaj ci njaareem ne ko ana nag woowu mu ne ba fii may waxee ak yéen mi ngi jëm kaw àggugul fa mu jëm lu dul dañoo àgg yowmal xiyaamatil akbar am na naar bu bokk ci xale bi yoone yi bu ko mas a laaj ne ko bi nag wi riir jëm si ci yow ndax yëg nga dara ci tiitaange sëñ bi ne ko sëñ Modou Fall Hafsa sëñ Tuubaa ko nett nil boppam sëñ fa Fall sa mbokkam la sëñ Mor Fall Absa bi mu bindee kaamil ba andil ko sëñ bi xisab gudd la dama koo dagg foofu keroog ba muy ñëw dafaa fekk sëñ Maxtaar Bintaloo ak sëñ Mbay Jaxate bi mu koy jox sëñ bi nee na dafa mel ni sëñ bi damay damay song ngir yàkkam day jot ci kaamil bi ne bi ñu ci jotee rek taf ko ci dënnam ab diir daal ko sa kaamil bee ma xamal ne wow na sëñ bi noonu la daa toppe daane waaye alxuraan de bu ma ko yemaleeku junni goréew ma bi mu waxee loolu sëñ Mataar bindaloo ne ko ku dul yow fanweeri dërëm ak ko gënal suñu daan li tax ma wax leen loolu dangeen ngeen dégg ñu ne tubaab yi gasaloon nañ ma am pax ñu ne ko waaw mu ne lu dëggoo dëggu la lu a am la bañ ko defee nag dañ koo gas ba mu xóot ñu wutal ko ay tëgét noonu ko suñu nettalee daane liñ ci jublu woon mooy buñ ma ci suulee bu ma faatoo buñ may sulli mu mën a yomb ci ñoom daane waaye bi ñu ma woowee bi ma ñëwee damaa taxaw ñu daal di lakkante daane moom de lépp loo koy bëgg a def xam na waaye bii moom ñemewu ko sëñ bi nee na fekk na booba rasulullahi laay xaar ma jox ma ndigal sallallahu alayhi wa sallam bi ma joxee ndigal rek naka ma teg sama tànk mu daal di ma ba ñu boole ma ak samay gaal daal di sànni sëñ bi nee na bi ma jëmee ci biir pax mi mboolem xeeti téere yi seen bu lim di samadu noonu la ko waxee dañoo daw njëkkante ma ku ne bëgg maa aar waaye nee na alxuraan moo jiitu ci man moo ma aar ba dara laalu ma daane bu ngeen déggee ma naan du ma faatu faatu ku ko dul def amul waaye man sama wàll foofa laa ko jëlee. daane diir ba ma nekk ca yeer ma nekkuma woon àdduna maa nga woon bar sàq waaye suñ boroom moo seet àdduna kenn neexatu ko fi ku may man mu delloo si ma mu delloo si ma nee na it foofu képp ku am tomb ci yàlla fekk nga ko fa waaye kuy ñëw danaan la bàyyi ma ak sama boroom ndax moo la ëpp yërmande ci man li ma nekk umpale wu ko waaye neen soxna jaaraa ko fa génne sëñ bi daana wax ne bi muy ñëw dégg na muy wayantoo xasida moo jigéeni àjjana yi mu àndal ba toll ci salla alayka bi man la ladayka musnin alayka inda rimaa'i alayka sallam dëban wa karram man bi ka asam ala timaa'i nee na foofu dégg nañu koy ñu koy bi mu ñëwee moom it waxut ak moom sax daa ñëw rek jàpp ci mbagam jékkati ne ko tegg ne ne ko demal liggéey ñii dañ lay yàqal rek bokk na ci yeneen lañ ko fa def takk ko sëñ bi takk ci garab ba mu àgg ñu jox ay nit fetal ñii ñu jox leen ay paaka kenn ku ne ñu diir loola fenn ci jëmmam ne la ne la ne la jàmmal loolu bisu talaata la woon sëñ bi junñ ne ko wahaba lil wahab fi sulaasa maa yuxjilul asrata wa salaasa bi ñu weesoo loolu am na jamono yoo xam ne dañ ko wutaloon lu mel ne ak kaaf bu ñu koy tëj nee na dañ koo natt ci sama jëmm ba mu toll ci buñ demee ba sonn ci man dañ ma ci takk ba ma dëgër nga xam ne dañ ko fay nekk dafa lay nekk waxtu julli ba waxtu julli si nga xam ne dañ ko ci dañ ko cay nattoon ci jëmmam am na ci yoo xam ne neexut a wax tubaab yi ñu bon lañ sëñ bi te te mën a def lu bon am na jamono yoo xam ne sëñ bi garab gi mu nekkoon bi ci mujj gi bi mu toogee ci njaareem garab googu boo duggee ci biir kër gi rek di nga ci yem sëñ mas na cee toog daal sama ñaari garab yi daa wax ne sax kàttanu yàlla ak dogalam sëriñ si dañ koo jàng man dama koo mos sëriñ si dañ koo jàng waaye man dama koo mos mooy dama koo dund ak yàlla daane ndax loolu mooy sama ñaari garab yi ku ko amoon ku dul man danañ wute ci yow daane garab gii ma toog di wax ak yéen tey ak gaw garab gawoon ca maa yomba daane garab gawoon ca maa yomba ba ma fay doog a dem ka ma fa yóbbu woon daa xëy dajale waa dëkk bi yépp ne bu ngeen xëyee ku ne la nga gën a bon le na nga dem xëppi ko ko sëñ bi daal ne daan naa seen màggatun tubaab moo xam ne bu xëyee day sukkootoo bantam ba agsi ci man mbuubiitu néegam mépp sama kaw la koy sotti nee na am na ci ñoo xam ne bu ñu xëyee pon miñ fanaanoon log ko bu ñu ko loggee ci sama yére lañ koy fomp si am na ci ñoo xam ne pot ya ñuy fanaanoo mooy poti sàmbur yi sëñ bi nee na sobee sañ tey def bu ñu xëyee dañuy ñëw sotti ko waaye nee na foofa laa doon waxee ne baayax tuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara daan leen bi ma dellusiwaatee fii suñ borom fay ma leen ma waxaat ne ko baayaxtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara daan ñaari garab yi sama bakkan xàmmeewu leen bii gënta neex ci man bee gënta naqari ci man te noonu lañ ko fa doon noonu lañ ko fa doon def àggoon nañ sax ci jamono yoo xam ne. maanaam seen ngédd yi mooy fi gétt yi ñuy yeew seen seen seen kalbu yi dañ ko fa daan takk moom sëñ bi nga xam ne àggoon nañ foofu ndox mi ñuy jàmbat nun nii am na foo xam ne kaamil boobu sëñ bi yoroon boobu mi ngi fi ba tey sëñ bi neen damaa nekk ci bërëb boo xam ne daa jekki jékki am ndox ñëw ndox mu bari am wal nee na moo xam ne yàllaa ko yebal nee na wal mi ñëw rek yóbbaale ma yóbbaale yi nga xam ne yóbbu na ko lu toll ci ay kilomètre di dem ak moom sëñ bi nee na booba kaamil bi mu yor rek la la teg ci dënnam te bañ mu tooy nga xam ne ba léegi kaamil boo gisee da ngay gis tis tis ndox mi nii nee na mu ma yóbbu di ma yóbbu di ma yóbbu nee na ak garabu daakaane ci la ma ndox mi dóor bi ma ci dalee gaata daakaane gi moo ma téye moo tafu ci jëmm ji moo ko téye nee na moo ba ba ndox mi dem mu ne ma jóg a jógee jóg dajale waat samay bagage ci tumuranke bu metti googu la nekkoon àggoon na ci ñu di ko lakk ci ay pour moom sëñ Tuubaa sëñ Maxtaar Sylla bëkk néeg bokkoon na ci ñi ñi gën a jege sëñ Tuubaa dafa am bi sëñ Tuubaa di tàngal kafe sëñ néew na mu daa def lu nee na bi sëñ bi tàngal kafe gi déedéet di tàngal kafe gi teg ko ne nee di ko tàngal ba kafe gi di bax waaye sëñ bi jëlu ko nee na ma xam ma jàpp ne sëñ bi da koo faay da koo fàtte nee na ma ne xaaral ma tegg ko waaye yàkkamti gi ma yàkkamti tax rek ma jékki-jékki ne ko jàkk daal di koy jàpp noonu nee na mu lakk ma rek ma daal di wiccax sama loxo daal di bàyyiwaat nee na sëñ bi ne ma mas matar si la digalle ko digalle ko mooy jàppe ko dara nee ma wut ab mouchoir maanaam ab morsa jàppe ko ko daal di koy teggi nee na ko teggee ba teg ko sëñ bi ne ma si la ma ne ko bakki mu ne ma sawara moom ku dul seen waa ji ñemewu ko daal ne ko bi ma nekkee ci tukkib géej gi tubaab yi dafa am jamono joo xam ne ñiñ jàpp dañ leen di lakk ku ci aaya dañ leen lakk ba nga ñor ñu sànni ji la mooy prisonniers yi daane ko diw sàngam de keroog ba mu aayee fa la ma fekk waaye bi mu ñëwee moom dana ma dama bëgg nga dox sama digganteeg sawaraw àllaaxira ma ne ko dox naa sa digganteeg sawaraw àllaaxira doo ca lakk sëñ bi daal ko maxtaar si la moom de daa wóoluwut waaye bu ne ma woon sawara woowu sax du ca lakk daane ko waaye sawaraw àllaaxira la ma wax moo tax dañ koo lakk ba mu ñor ñu sànni ji ko daane ko waaye cëy seen waa ji moom ba mu aayee daane keroog ba ma aayee day buñ ko daa lakk benn yoon dañ koo lakk fukki yoon ngir ne man liy faagaagal nit ñi du ma faagaagal daanaka keroog dañ koo tàngal di ko tàngal ba mel ne ak soy ñu ne ko ubbet ne ma ca yulub bàyyi ma ca bàyyi ma ca bàyyi ma ca ba defe ne bu doon luy ñor war na maa sooy ñu ne ubbet fekk ma may julli ne ko keroog ba ma fa ne naa tekk sama tànk ab sedd toppe na ma fa boo xam ne ba fii ma toog di wax ak yow sedd boobu maa ngi ko yëg ca biir foofu nee na bokk na ci li ko xamal ne ko tàng na mooy li muy doon bind ca bërëb boobu ni mu doon gaaw ni mu doon gaaw woowe nga xam ne nee na araf mu toll rek mu wow <laughs> nee na looloo ko xamal ne bërëb bi tàng na waaye moom ci jëmmam ab sedd la doon yëg ay mettit la am na ci boo xam ne maam ant Anta gaa gaawaan ba mu fay ñëw la bërëb bi mu fekk sëñ bi ci àll bi la bi mu ñëwee maam Seex Anta mi ñu jubee fi sëñ bi nekk xamu ko woon waaye sëñ bi it rasulullahi moo ko wax ne ko sa rakk Sidi Muxtaar mi ngi ñëw jógal gàttanu ko sëñ bi jëfandikoo ndigal li rek ne bërit maam Seex Anta dafa réeroon ci àll bi waaye bi sëñ bi ne bërit xetu sikki gi daal di koy xeeñ mu yëg ne sëñ bi soreetul mu tàmbalee raam moom doonte gisu ko sëñ bi it moom di jëfe ndigalul li rasulullaay dugg àll bi moom it ñoom ñaar ñu daje maam senta nee na bi sëñ bi jàppee samay mbagg ba ma jóg bi ma gisee jëmm ji nee na ci laa xam ne yëf yi metti na ndax dafa jeexital ci moom nee na jëmm ji dafa soppi ko ba doy waar karaw gi sëq ba ba ba mu kiibaane wéy noonu neena mu ànd ak man ba ci bërëb bi mu nekk nee na ma ma ne ko ndax am naa ndigalul wàññi karaw gi nee na sëñ bi ne bisimilah nee na ma ma wat ko ba mu àgg nee ma ne ko ndax am naa ndigalul wàññi weyi nee na sëñ bi waxuma dara daal tàllal baaraam rek ma daal dagg we yëpp nee na mu boole ñaar yëpp ne ma booy dellu ci réew ma nga yóbbaale ko ndax fii bëgguma sama dara des fi nga xam ne gis nga watu bu dama saa watu sax wala mu daggay weexam da koy def ci gaal yi. nee na biñ noppee mu mu yaatal foofa julli jot sëñ bi di ko jiite. loolu nattu baatin la gis nga Sëñ Tuubaa niñ ko doon nattoo nattu zahir noonu la amee nattu yoo xam ne natt yu baatin la nga xam ne ci boroomam lay jóge di jëm si ci moom di jëm si ci moom waaye yoon tubaab ju ci nekk maam senta nee na bi julli gi tàmbalee rek daa am loo xam ne ëpp na jinax taagul ci kaña ñëw rek ne saraax ci biir mbubu sëñ bi nee na di yëngu di yëngu di yëngu ba yàgg mu génn takk ripp deret mu wóor ma ne ci jëm ji la nekkoon te sëñ bi rafut maam Cheikh Anta neen diggante boobu damaa daal di xam nga xam ne ne julli ga sëñ baa xam fa mu mujj waaye man xaw ma ko nga xam ne nee na damaa damaa yeewu gis sëñ bi tiim ma di ma ñaanal yooyu ci natt yi ko doon dal ci ci natt natt biir la boole ko am godd yu koy màtt gis nga sëñtuwaa ñibbisi na ba ñëw njaareem xam nga ñibbisi na def fi ab diir demaat gànnaar def fa lu man ñeenti yu tegal ñëw ci yéen am fa juróomi at ba ñëw njaareem am fa fukki at ak juróom ba ci mujj gi ñi ngi dindi godd yi ñi ngi dindi li godd yi doon def ci yaram bi ba ci mujj gi sëtu nga xam ne bu ñu ko masaan a màtt day am ñu bàyyi ci biiram loolu ñëw na ba njaareem ñu koy sekki wallahi coono yooyu gis naa bataaxal bu mu bind kenn ku ko seeti woon waaye sëñ dane ko bu du ak coono yi may yëg sama yaram ginnaaw tukki bi maa lay gungee sama bopp daane waaye fi ne yaram wi coono yi coono yi moo moo moo ñu xam ne loolu lu tiis diis la te ñun ñoo tax mu dal ko sëñ Tuubaa te gis nga bi liggéey bi yépp àggee njaareem ga gànnaar gànnaar sëñ Tuubaa daa génn ci xayma bi fajar ginnaaw julli fajar ginnaaw julli gee daa génn ci xayma bi di wuti génn ci jàkk ji di wuti xayma bi bi mu génnee rek am lu ko matt sëñ bi yegg suuf daldi xëm bi mu xamee ñu ñu yëkkati ko jël ko dugal ko ci biir suturaal ko xëmte loolu sëñ bi da koo fanaane ba fajar jotaat bi fajar jotee biñ noddee rek mu daal di jóg daal na ñëpp mën nañoo dellu ci seeni soxla bañ jullee ba noppi mu woo sëñ Maxtaar Jeng ne ko mbirum biig mi de lu yéeme la waaye danaa la ci ubbee daane ko bi may génne ci biir jàkk jàkk ji la sama borom di wax waxanteeg man ne ma sa liggéey bi sotti na ba xéewlu gee ci des te sa ñoñ ñi rek ñoo ko nar a xéewloo te amuñu benn natt te man loolu du sama sunna sama benn jaam bala moo jot sama njariñ danaa ko natt daane ko la gën a woyof ci seenu natt nag mooy seen bakkan kenn du ci fanaan ci kaw suuf ñoom ñëppay faatu sëñ bi nee na ma ne ko ak li ma la defal nee mu ne ma mooy sama sunna nee ma ne ko ndax mën na maa gis natt bi nee na bi ma sama borom murilee kiiraay yi bi ma séenee natt bi xool xooli taalibe yi natt bi fukkte ko ma xam ne attan nañ ko ma ne suñu borom ndax man nga mu koo yan ma féetewul leen ko nee na mu ne ma bu la soobee ne ma ne ko bisimilah nee na bi ma ne bisimilah daa mel ne dañoo boole asamaan seeg suuf si teg ko sama bopp daa bi mu ñëwee ba njaarim daan wax ne damaa xamee ca gànnaar waaye diisaayub loola teggikuwul ba fi may wax ak yéen sëñ alhaaji Mbàkke nettal na ne sëñ Saalihu Mbàkke nee na ko li may yëg suñ ko tegoon kenn ci waa dëkk bi boo tollee ci bunt dëkk ba di dégg baatam daane ko tasaa bu nit ñëwee di wax ak man day dolli ko te gis nga day xëy di wax ba wax ak nit ñi ba guddi loolu mooy lan donde ci sëñ Tuubaa gis nga sëñ bi loolu yenn la ci moo tax bopp buy metti dikkaloon na ko boo xam ne boo xam ne sëñ bi da koo dëkkoo woon bopp boo xam ne day metti am na ko sant kebe koo xam ne mas naa ñëw sëñ Tuubaa ne ko dama la cee bëgg a wuutu nga dénk ma benn ci nattu yi lu mel ne loolu xam naa fi mu dëkk nitu yàlla la bi nga ko waxee sëñ ne ko mbaa di ko àttan mu ne ko dañ la cee bëggoon a liggéeyal rek ne ko mën ngaa dem ba mu delloo fu mu dëkk fajar gi ko loolu njëkk a dikkal dañu mujj yanu ko indiwaat ko ndax fu waaye dool di dégg baatam bi mu ñëwee sëñ ñaanal ko mu dal sëñ daal ne mbaa du ngeen ko ci reetaan daane foofu mu ne day lu toll ne fépp karaw laa ko ci teg fu waaye toll di dégg baatam daane tam moo ne kenn ci yéen attanu ci lim ci àttan ci lim ci te dama dëkkoog moom kon natt yu diis la woon moom sëñ bi te yooyu nag ñun ñoo tax sëñ Tuubaa tegoo ko léegi nag ñun ana luñ tegoo ngir sëñ Tuubaa maanaam lu ñu sëñ Tuubaa jaral ak li ñuy wax ne sëñ Tuubaa moo ñu ko jaral ndax loolu wér na ci nun loolu bis bi mat na ci misaal sëñ Tuubaa dane koo xam ne sama mbég sa mbéga nang ma ci santale sama borom fi ne bari na ci ñun ñoo xam ne lañ denc moo ëpp liñ indi te fi ne buñ amoon seen xewu bopp rek duñ ca doxale noonu ca dëgg-dëgg loolu tekkiwul ne maanaam mbégum sëñ bay sa mbég am na ñoo xam ne ñàkk am benn soxla moo leen tax a ñëw waaye bu ñu amoon benn soxla duñ ñëw bu ñu amoon jenn yitte duñ ñëw maanaam waaye xooli sëñ Tuubaa moom lim daj ngir nun moom ñun moo tax jariñu ci moom yombul waaye jariñu ci ay njariñam nag yomb na man Sëñ Tuubaa am ci moom ab cër lu jafe la am ci xéewal yi ab cër nag lu yomb la ndax xéewalu yàlla la goo xam ne mbindeef yépp a ko bokk moo tax bariwaana na ku jàppee boppam ak murit te mus maanaam xeeñugu ko sax xet ga xeeñugu ko loolu Sëñ Tuubaa daana ko leeral am na ku ñu wax maa ngi guddal daa mel ne sëñ Moodu Xaddi Mbàkke sëñ Moodu Xaddi daa masalaat Sëñ Tuubaa ne ko murid yi njëkk ya damaa gisoon ñu mel ni ay weer murid yi mujj yi leer gi daa wàññiku bañ mel ni ay biddiw ci gisiin te boobu sëñ baa ngi fi waaw boobu sëñ baa fi ndax sëñ bi la laaj sëñ bi ne ko ñu njëkk ña ba ñuy jóg jëm ci ci man dañoo gàddaay àdduna ak li ci biiram wan ko ginnaaw xamuñu barke bëgguñu alal dañ ma topp rek ngir yàlla ba ma leen defaree ba gërëm leen tofal leen ca barke daane ko ñu mujj nag barke booba lañ seen moo leen tax a jóg barke booba lañ seen moo leen tax a jóg loolu la suñ musaaka naan moo du Khady Mbacké noon na bàmba lu tax ña ñëkkoonu muritu tuuba mel ni ki weer ñu mujj ñi mel nay biddiw te xam ne yaay jant ku leeral yaa ko raw mu ne ko laaj nga ma danaa la tontu bul dëpp bul yàkkamti yow mi santu ña njëkk a jóg dañoo jógoon ngir yàlla ñii mujj a jóg roy leen di daw ngir yi la yëlee murit xamuñu woon luy barke muhaajiriina lañu woon fa mbàkke yi lay murit fii aaxiri samaani bëgguñ lu dul barke amuñu imaani gis nga loolu la Sëñ Tuubaa tontu kon murit bi nag dafa war a sonn ci boppam ndax li may faral di wax maanaam barzaq amut lijjantiwaat maanaam kenn ku ne sa diggante Sëñ Tuubaa fi nga koy lijjantee te sëñ Tuubaa du ay fo sëñ dëgg la murit bi nag war na koo dund ba xam ne sëñ dëgg la nga xam ne kenn du ko ne dëgg la moom mooy xam ne dëgg la moom ci jëm boppam mooy xam ne sëñ dëgg la am na ñoo xam ne li gëmee sëñ Tuubaa luñ ne nettali la wala béy duñ jàng loola lañ gëm waaye ñoom amaguñ ci yaqin nag dundaguñ ko ba am ci yaqin mos ko te ku sa diggante sëñ Tuubaa leerul fii ci àdduna wal iyaasu billaahi taala te sant nenn wala dëkk di ñëw Tuubaa ak nangam rek taxut doyut biir njaareem biir njaareem am na ñu Sëñ jàkkaar lool ne leen yéen ñii fii ci àdduna laay mujj a tegante yéen bët daan ne leen àdduna dañ koy misaal ci àllaaxira waaye wuute nañ àdduna dara jo joo mën a am téewut ku la bëgg a gis-gis sax ëllëg yowmal xiyaam nag ña bokkoon lañ doon def képp ay gisante daal ne leen taman fa may nekk defu leen lu leen fay indi yéen fa ngeen nekk defuma lu ma indi moo tax sama gisee yéen fii ci àdduna la léegi murit bi war naa natt boppam xool ba xam moom muritu dunyaa la wala muritu Sëñ Tuubaa la moom te loolu kenn du la ko defal ndax yow yaa ci am intérêt loolu nag ngir mu mën a am mooy li mën a wax keroog in faut day am loo yee ci sa bopp maanaam xasida yi lu ko ëpp doole amut waaye est-ce que ñi ngi ñi ngi ñi ngi yëg liñ ci war a yëg ñu bari ci nun seen diggante ak Sëñ Tuubaa ñi ngi koy nattee ci seen àdduna ci seen àdduna bu seen àdduna doxee ñu sant sëñ Tuubaa waaye mosuñoo sant sëñ Tuubaa ci bëtt naa pay ba maanaam àgg naa ca pay ba gis naa gaaña wax na ma ak nangam yëg ko daal xam naa ni sëñ Tuubaa ngi dund ndax wax naa ak man nee na ma nangam yooyu du teraanga rek ju ñu sëñ Tuubaa teraanga terale maanaam maanaam du dara di fi ne nii léegi ndax loolu nit ki da cee war a da cee war a àgg nam cay àgge nag il faut ab dox la fi ne ñu bari ci nun mën nañu ubbi xasida jàng ko ba mu jeex waaye li sëñ Tuubaa wax ci xasida gi mënuñu cee indi benn firnde mooy li sëñ Tuubaa ne kafaaniyal baaqi mamaata sarmada wa bi baqaa iya yasuru ahmada léegi lan moo tax sëñ bi di ko bind yàlla faral na ma ak faatu maanaam boo ñëwoon sëñ bi ne la maa ngi fi man nekku maa maa ngi ci néeg bii lan la jublu ci xamal ne la mi ci néeg bi mooy bëgg nga mën a tàbbi ci biir ba gisanteeg moom rek xamal gi ñu Sëñ Tuubaa di xamal ne mi ngi faatu mooy mi ngi jëflanteeg ñun ba tey ndax noo ngi yëg jëflante googu nag ndax ñoo ngi koy yëg ndax kenn ku ne ci nun yaa ngi jëflanteeg Sëñ Tuubaa waaw wala déet loolu nit ki moo koy tontul boppam moo tax suñ bay jaxate ne woon murit yombul de wax ko moo yomb murit dëgg yombul li yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit murit dëgg day dee te deewul ndaxam li day metti metti jotut ak murit amaanaa nga gis waa ju tëb daal di dee te doo gis waaju tëb daal di def am murit te léeg nga gis waaju dox ci morit ba dundam nga xëy jeex mu réer ak murit te léeg-léeg nga gis waaju dox ci murit ba am ay murit te kat du loolu mooy di ci gën a yéeme gis ku nekk ci yoon wi di wax ne ab morit la ba nit ñi mujj ñuy jàppe ko ab ab ab sëriñ di jébbalu ci bi moom te moom yaa Sëñ Tuubaa nangulu ko ab muritam te loolu Sëñ Tuubaa waxoon na ko kon ndax Sëñ xanaa ñun ñëpp xam nañu Sëñ mbiram daa jëm kanam kon wàññi ji wàññi ko gi ci nun ci nun la Sëriñ Habibu Mbàkke imaam nee na woon bi ñuy nekk njaareem boo ma a jébbalu ci Sëñ Tuubaa ci jataay bi nga jébbaloo ngay doone waliyu nee na boo jébbaloo ci sansé bala ngaa jóg yëg ne doon nga waliyu doo ko jóg nekk sab liggéey te moom loolu da ko fekk nga xam ne nee na ñoom bi ñu ci kër gi ngir ñu xàmmee saabees yi gan ñi ñi yàggagul ci kër gi bu ñu leen bëgg a xàmmee ne bu ñu la déggee nga naan gis naa arasak démb damaa dem arasak démb damaa dem kursi yu dañu xam ne yow bu saabees nga yàggagoo fi ndax boo fi yàggee da koy miin ba dootoo ko waxtaane xoola loolu te léegi ñu bari ci noonu ba ñuy waxtaanee arasak kursi yu day mel ne gan a ñëw ci ñoom te ñoom mbir ya daa daa ubbi ko woon ci ñoom mooy li ma doon nettali àggoon nañ ci lu leen sëñ bi digal ñu def ko sëñ Moussa Halima Gueye sëñ bi bind loo na ko mbind moo xam ne daa ubbi mbind mi rek ne ko bindal ma lii te bu ko xool daal di koy tëjaat sëñ Moussa dem bind ko ñëw jox ko sëñ bi te moom xamul lim bind te moom xamul lim xam nga loolu doy na waar sëñ Sohayb mas na koo laaj ne ko mbind ma xam nga ko mu ne ko ba fii may wax ak yow xaw ma ko waaw te bind na ko sëñ bi ne ko ndax mënaan nga ko mu ne ko ka ma ko digaloon de ba ma ko digalaatee rek ka ma ko digaloon mbind moomu keroog bi mu koy indi. maanaam daa ñëw ba jub sëñ bi fekk fa kenn toog fa mu daal taxaw ngir teggeenu sëñ bi ne ko yaa Muusa aqbil wala taqaf innaka mi alaaminina mu ñëw bi mu ñëwee Seex Ibra Faal moo Seex Ibra Faal la fa toogoon la ginnaaw timis bi mu ñëwee sëñ bi nii la def loxoom bu bam daa dugal loxoom ci biir ba loxo bi dugg nga xam ne fii la jële mbind mi keroog bi muy jël mbind mi fii la ko jaarale nga xam ne jaarale ko ci ci biti kon mbind mu ñu war te gis la nii la def suñ Moussa daal di koy teg mbind mi fii sëñ bi dugal ko ci biir daal di leen fay bàyyi ñoom ñaar bi leen fa bàyyee Seydou Fall daal dannu si daan ne ko Moussa yow muus nga lool di ana nooy bind loo gisul mu ne ko yow doy nga waar lool di ana nooy nett loo fekkewul gis nga booba ñoom ñëpp ci connexion Sëñ Tuubaa la ñuy dox lii xew dañ koy xam lii xew dañ koy xam nga xam ne noonu lañ doon dundee am na ku ñu daa wax sëñ Modou Awa Ndiaye nga xam ne sëñ Tuubaa da ko wax ne Modou Awa Ndiaye sama wàlliyu si mooy sama wàlliyu ndaw yi <laughs> bu ko sëñ Massa wax da da ko naan man de xawma kon sa wàlliyu mag nu war a mel <laughs> ndax connexion ba bari woon moom sëñ Modou Awa Ndiaye am na ku mu doon xulool ci daaree Kamil ji ci waa daaree Kamil la bokkoon ko naan ko Modou Awa Ndiaye maytu ma dañ lay jay rek nangam ak nangam <laughs> waaye man la sëñ Tuubaa waxoon ne ma yaa Yaxyaa xusil kitaaba bi quwwa mu ne ko yow xamoo lii la sëñ bi wax dalaa wax ne faatu gu bette ngay faatu <laughs> kooka tisbaar googu jàng si wut kaamil daal daal faatu <laughs> nga xam ne ñoom noonu la dañoo dañoo yëf yi daa gëndaloo woon leer daa gëndaloo woon dañ daan yëgante di jëflante ci ci ci anam googa loolu dafa neex mooy dund gi ñu gis ci kaw gu ko dàqañ ci suuf maanaam Sëñ Tuubaa am na dund gu neex gu nekk ci moom goo xam ne il faut que nit ki fexe ba connecté wu ci sëriñ bi li may wax ne jafe-jafe murit bi mi ngi nekk ci li fee kumpaam dañut ci sëriñ bi sa kumpa saa bu dañee ci sëñ bi sab a jeex dara dootul rëy ci yow dara dootul naqari ci yow dara dootul la mën a fàbbi màggug Sëñ Tuubaa mooy teew ci yow ba dootoo gisati màggug dara neexitu bëgg sëñ tubaa mooy fees ci sa ruu ba dootoo yëgati neexitu la neen loolu nag in faut nit ki jéem koo jéem koo kii boo ko deful dangay dem ba jàpp ni bi du dëgg te sëñ tubaa dëgg la ngir nga mën def loolu nag il faut da yar sa ruu ruu gi ñàkk gee dund moo ñu andil ay barrage mooy ni ma koy misaale damay wax ne mi ngi mel ne doomu aadama mi ngi mel ne ab téléphone téléphone bii am na ay application application yi mooy cër yi waaye téléphone bi ñaari piis mën na cee nekk ñaari piis yëpp mën nañoo am connecté connexion waaye fi mu boo leen boole boo taaloon connexion bi ba ëpp doole mooy dem ñaari yëpp moom mënuñoo demandoo bi tàmbalee connecté it mooy jox application yi connexion ngir ñu mën a def seen liggéey loolu mooy doomu aadama doomu aadama cëram yi mooy application yi maanaam. xol bi ruu gi mooy benn piis bi bakkan bi mooy piis bi ci des ruu gi moo nekkal yàlla ci jëmm ji bakkan bi moo nekkal seytaane ci jëmm ji saa bu nit ki connecté woo ci bakkanam mi ngi liggéeyal seytaane ci lu neex seytaane rek lay mën a jëm bu nit ki connecté ci ruuxam ñu ne nitu yàlla la léegi ci lu neex yàlla rek la mën a jëm bu nit juddoo nag gis nga nit am na bët bu juddoo bis bi mu juddoo am nay bët am na nopp am na gémmiñ waa lan moo tax mënta gis mënta dégg mënta wax mooy ñaari piis yi benn da cee amagut doole ju leen mën a jox luñ connecté woo bay gis wala bu ñuy dégg moo tax cër yi mënaguñoo def seen liggéey moo tax foofu lislaam ne nañ gaaw nodd ci nopp bi li xam ci mooy jën jëndeel connexion ruu gi mu tàmbalee yëg yàlla tàmbalee am connexion ci diggante mu borom waa gis nga ne gone gi liñ koy gën a def mooy di ko nax di ko tëgal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko tëddal fu sedd loolu mooy ñi ngi jëndal bakkan bi connexion moo tax gone gi buy man bu tàmbalee mën a dox wala muy mën a wax du wax lu baax fi mu ne day jaxase suy jëf day yàq su jógoon jëm fee nga ne téye ko da ko yàq lan moo tax nga ne da ko yàq gis nga lim man bakkan ak ko man loo moo tax da ko jële ci connexion bakkan bu demee ba tàmbalee toll ci ñu war koo yar di dëgër ñu ne nañ ko yar lan mooy lan moo tax mu réew yaru ak réew ñoo yem te day réew ñu yaru lan moo tax loolu mooy li muy man kon lu lépp booba bakkan bi mooy dox ci moom moo tax am na ñoo xam nag ci loolu la ñuy wéy ñu bari ci nit ñi loolu la ñuy wéy te gis nga bakkan bakkan connexion amul doole boo géegee suñu borom naan inna eh, kayda seytaani kaana daxiifa mooy moom ka koy jox centralam ba sax amul doole moo tax moo tax bu joxee say bët connexion bët yi boo doon xool bu dara doxee digganteem ak li muy xool dootu ko gis kii déggee noppi kese bu dara maanaam lu so lu jege rek la mën a dégg mën a tut a dégg lu sori xel mi it mënta xalaat xalaat yu am njariñ xol bi noonu cër yi noonu moo tax ma ne foofu la abstention nekk bari waa na ko jàpp ne bëgg na Sëñ Tuubaa te fekk bëggagul Sëñ Tuubaa fi mu ne bari koo xam ne mi ngi jooy jàpp bëgg na Sëñ Tuubaa maanaam mu ngi dem Tuubaa ma ngay dem xel ko ma ngay jàng xasida te fekk moom bëgg Sëñ Tuubaa tabbeegul ci xolam Sëñ Tuubaa nit mënu koo bëgg bis ba bis ba dellusi te yëgoo ne am nga cër ci yàlla loolu mënta nekk na li kulli man lahu wilaaya gis nga wilaaya googu mooy connexion bi connexion kii bëgg Sëñ Tuubaa day am connexion buy nekk ci moom moo tax mu koy bëgg day am ruuxam day am doole suñ tubaab bakkan du ko topp ruux moo koy topp moo tax gis nga ñi koy bëgg-bëggu bakkan ci phénomène yi rek lañuy topp waaye duñ topp ci ndigal yi waaw kay mbiri bakkan yi la ñuy topp maanaam li leen neex ci xel ko mooy daa xew léegi li leen neex ci màggal Tuubaa mooy daa xew la leen ca neex rek suñ seenoon sëñ bi su sëñ bi ne woon tëll li ñuy yëg buñ gisoon mbërum làmb mi mooy maanaam bakkan bu yëngutu loolu lañuy bëgg mooy daw ba jege ko nuyu naa ko fotowu naa ma moom succès ba waaye du barke ba moo tax dañuy yuuxu dañuy tàcc dañuy daw loolu mooy bëggu bakkan noonu kii supporté noonu rek lay def waaye su ko ca amee jeex na jeex na loolu mooy bëggu bakkan loolu moo tax nga gis murit boo xam ne danaan la man bëgg naa sëñ Tuubaa waaye man mënumaa def dara ci ndigal yeeg yooyu sëñ sëñ daal xam naa ni bëgg naa ko fekk bakkanam ko bëgg moom li bëgg ci sëñ bi lépp mbiri àdduna la bëgg googu nit ki mën na cee sax bay tuumaal boppam wala muy tuumaal sëñ bi ndax lan da ciy yàgg du amub cër ci sëñ Tuubaa du amub cër ci moom bëgg googu nag mooy mooy ak gumba gis nga ki nekk ci loolu day umpale boppam nit ki day yëg ne yàlla nga koy envoyé ay message waaye moom message yooyu mënu koo liir xamu ko moo tax sax nelaw gént ci ruu lay jóge lu ceeb bu nit ki tëddee di nelaw bakkanam day néew doole ruuxam tàmbalee am doole gis nga ruu moom su tàmbalee am doole rek message yi tàmbalee wàcc loolu mooy gént yi message yooyu di wàcc ñi amoon connexion liir nañ ko ñoom bu yàgg ñoom yow mi ngi doog wàcc yow am na ñoo xam ne mën naa wàcc te doo am sax lu doy ci liy wàcc ci yow ci soru ci lu ko mën a xam moo tax nga dégg ñu naan la géntu ginnaaw fajar wala fajar dëgg la lan moo tax loolu jamono yooyu saytaane du dul amati doole ndax yàlla day jege satellite bi day jege yàlla day wàcc ba ci asamaan su mujj si moo tax saytaane duutu amate doole boobu ruu dooleem day yomb day connecté wu ci yàlla moo tax la fay jógee yëpp message yi ci yàlla lay bàyyi ko moo tax day yëg. muy mu am am yuy wàcc looloo tax ñuy ziyaara ji fi ne ñu bari buñ ñee ziyaara xamuñ lu tax ziyaara mooy yow taal nga sa téléphone waaye amoo connexion te bëgg ngaa bëgg ngaa bëgg ngaa yëg dara daal wala dara bëgg nga mu wàcc nga dem nag ca euh, wifi ba wala ca centrale ba fi ne boo àggee rek da ngay jékki-jékki rek dégg message yi di wàcc mooy yëg-yëg yi ngay yëg boo jàkkaarloog sëñ Muntaxa wala nga dem ziyaare ji sëriñ bu matu sëriñ day am yu tàmbalee wàcc sa xol nga xam ci jataay bi yow da naan man daal fii bu ma fi jógee moom danaa bàyyi àdduna danaa sóobu danaa def nangam danaa def nangam boo génnee nag ñaari fan nga ci teg delluwaat ci fa nga nekkoon loolu mooy li anzala doon wax naafaxa anzala seen naa boobu ne ko lu tax nga naan am naafiq nga mu nekk bu ma nekkee ci yonent bi teewlu gi may am su ma dama ko dul am mu ànd moom ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko waxaatal li nga waxoon ansala ne ko man am naa feq laa ndax bu ma nekkee ci yow damay amul teewlu te bu ma génnee rasulullah ne leen ne ko teewlu gi ngeen di am bu ngeen nekkee ci man bu ngeen ko saxaloon da ngeen dem bay saafaxante ak malaaka yi mooy connexion bi ngeen di am bu ngeen nekkee ci man bu ngeen fexe woon ba téye ko maanaam fu ngeen bëgg a dugg ci site yi da ngeen fa mën a dugg maanaam dootoo amati jafe-jafe ansala àgg na foofu mu jot na di saafaxante gaañu loolu mooy ziyaara ji am na ñoo xam ne day ñëw Tuubaa ba dellu te dara seen kii du tàkk maanaam ndax li ñu fi jëlee taataanuñ ko ñoom taataanuñ ko ziyaara loolu lay jariñ moo tax gis nga xel mi kii kii jóg di jóg a soobu mën ngaa gis koo xam ne fii ci jataay bi nii am na ñoo xam ne jataay bi mën naa yàgg ci ñoom yàgg da yàgg te fi ne am na koo xam ne ca timis ba tey mën naa seetaan ay match si football ba fajar te du ko yëg moom day gaaw ci moom gis nga ko mën ngaa gis ko mën naa taxaw fii léegi di entraînement yëkkati yu diis di daw di dikk yaa ngi dégg di sëgg di siggi ba ñaq ba ñaq nga xam ne léegi yow cër yi sawar na nga ne ko léegi taxawal fii jullil ma fukki rakka ak ñaar maanaam ci misaal wérdul maaxoos bi rakka yi mu àndal da ciy tàyyeel te mën ngaa entraînement ji ba ñëw de ba noppi tàyyeel ci kon lan moo tàyyeel <laughs> xanaa du cër yi loolu misaal mi mooy jëmmi jaamu yàlla gi ngir cër yi man koo def dafa war a fekk ñu am connexion te yow ruuga amoo ja connexion mi ngi mel ne téléphone bi nii ngay connecté wu ci tigo bi maa ngi jégalu ci tur ndax dafa am app dafa am connexion application yépp di dox ba yàgg nga jékki-jékki yóbbu ko ci orange bi te amoo fa app amoo fa connexion application yi dañuy taxaw léegi sikk si nekkul ci ñoom waaye dañoo amul lu leen yëngal mooy nit ki di sawar ca lee di sawar ca lee ba yàgg nga wëlbati ko ci lii mënatu ko danga nga koo andi ci loo xam ne jëfi la te moom bakkan bàyyi ko ne tewu tax cër yëpp daal di taxaw tàyyel loolu moo tax fi ne mën ngaa gis ko ne mën naa fanaanee xool téléphone am mën na ko fanaanee xool ba àgg ci dina la wax ne la ay nangami kii ni mënumaa nelaw guddi te boo ko joxoon benn jës bu wala maraaxib ne ko jàng ko bala moo jeex mu nelaw gis nga bala moo jeex rek mu nelaw loolu li ko waral mooy mooy moo tax nit ki boo koy defar doo ñëwu di ko naan ko sa bët yi nga doon xoolee lu xaraam demal raxas ko sa nopp yi déedéet ndax yooyu amuñu problème dangay ngay couper bi muy bakkan bi ngay couper rek taal connexion bi loolu la xasaayit di def xasida li muy def ci nit ki mooy da koy jox connexion connexion bi mu koy jox nag mooy bi gën mooy bi bàyyi ko Sëriñ Tuubaa suñ tubaab dane woon murid yi maay seen ndey daane nday nag yaay day xir lool ci doomam gën yeneen doom yi daane moo tax seen yaay ji di leen wax ne na ngeen nàmp ci moom te bu ngeen nàmpee bu leen bàyyi mukk te feralu leen te bu leen feralee it bu leen makk suuf daal seen yaay moom am meewam maanaam am soowam neex na bari na te du jeex te ku ci ma nàmp danga dëgër da nga am xel te da am kàttan daane bu ngeen gisee seen yaay di leen wax ngeen nàmp mooy yaay daa xir ci doomam gën yeneen doom yi daane bu leen maq suuf nag bu ngeen feree daane maq suuf mooy bëgg àdduna loolu jóge foofu mooy Sëñ Tuubaa nee na nañuy nàmp ci moom mooy nañuy jële ci moom ak leer di ko sotti ci suñu ruu loolu moo ñuy may kàttanu mën a ànd ak Sëñ Tuubaa mooy tax nga dëgër gis nga doom bu juddoo nii bu dee nàmp ba noppi lu yaayam bari bari soow ak lu soow ma baax muy nàmp boole ko di mëq suuf lu ñuy wax daa xiiboon wala daa feebar ak màggam day yéex murit bi bëgg àdduna ab doxam ci diggante bi ma Sëñ Tuubaa noonu lay mel day xiiboon ci dox bi day yéex day tawat ab doxam du gaaw loolu tax Sëñ Tuubaa nag léegi bu ne laa nàmpal ci man yow li ngay jaaxale mooy fan laay jaar loolu mooy li mu waxoon ne dee leen nàmp si ci man ndax man jaboot laa ju barim soow te duma muural sama batt nag mooy xasaay bi mooy ween wi ngay sex ngir sama leer mën a tàbbi ci yow mooy xasida xasiida boo ko tàmbalee jàng leeruk Sëñ Tuubaa tàmbalee tàbbi ci waaye naka lañ koy jànge bu boobaa gis nga ci nun mën ngaa gis wax ne bis bi mën na ci jàng fukki xasiida fukki xasiida te bu noppee bu noppee ca sensé day yëg ne jikkoom jikkoom dara wàññiku ci ci ak ñaaw loolu jafe-jafe la fi ne benn bayitu xasiida benn bayitu xasiida su fekkente ne nit ki toggowu ko li gën a bon ci kii jaamu yàlla mooy toggoo toggoo mooy loo xam ne da nga koo def ngir def lu bari fi ne genn bayitu xasida bu dee mooy sab dog yow saxal ko benn bayitu xasida wutal ko waxtu bul wax ci diir bi nga koy def na nga fexe ba teewlu sëñ Tuubaa teewlu gi la ci gën a gaaw mooy bayit wi nga toll xamal ne jaar na ci xolub sëriñ bi nga nga xam loolu bayit wi nga tollu mas naa tax sëñtubaa Tuubaa jóg bayit wi nga toll mas naa tax sëñ bi jël xalimaam ga nga xam ne nee na day yëngal aras bayit wi nga toll sëñ Tuubaa sëpp na ca daaham ja nga xam ne nee na ndoxum daaja mook dereeti saxaaba yaayam bayit wi nga toll sëñ Tuubaa jël na ak jotam mooy taam def ko ci te nee na moom lam an fu maalam yu fi di nga teewlu yooyu ci sa xol di jàng bayit wa la ca nekk ci ay leer day daal di sotti ko ci sa xol boo noppee nga bañ caa sësale ay caaxaan maa leer nga day dencu boo ko mënut xoolal xasida xool gis nga xasida xool boo ko xoolee rek te xoolee ko pasos day am lu sotti ci sa xol boo ko dégloo noonu Sëñ Tuubaa nee na woon kullu saidin xad raa xasaidi bil itiqaadin faasa bil xasaidi saa bu nit ki xoolee sama xasida te xoolee ko pas-pas la ma ca góobee da koy am xool rek déglu waxaale ma ko yooyu yëpp xam ngeen ko am na xis am gi ba ci am gi am na kilifa goo xam ne bi mu faatoo sëñ bi dane nañ seet lim lim bàyyi ndax dara bàyyi na dara ci ci liggéey bi ñu dem seet ñëw ne ko bàyyi na aw fas yu baree bari sëñ bi ne déedéet dara ci suñu liggéey bi xasida yi laa ci jublu ñu dem seet ne ko def bàyyiwut genn xasida sëñ bi dane nañ jaay fas moo gënoon a valeur ci lam bàyyi wut ku mën a bind ñu jox ko ko am neexal mu bindal ko ci xasida ak fukki bayit ak bayit ak ñaar ñu moomale ko ko doog ko denc nga xam ne dañ ko ko dañ noon lañ ko defee kon am na lu muy lu muy lu muy jariñ léegi nag ruu googu xasida moo ko yëkkati may daaneel foofu boo tàmbalee jàng xasida loolu jàngkati xasida yi dinañ ko xam da ngay gis ne yaa ngi jóge ci nafsul amaara bi suu yow buñ masaan wax jàng xasida yow sa xel sax lu ci nekk léegi da ngay jékki-jékki mel mel ni am na lu naan la yow te ngaa dem jàngi su ñee tey répété am na wala jàng xasida am na li ngay jëkka def mooy bañ ak bañ ngay njëkk a yëg ne tey moom xam naa ne damay bàyyi ba ëllëg wala yooyu waaye day am lu la yeddaat nga doog a dem loolu mooy nasul lawaama biñ ci jógee nga ñem ci nasul mutmainna loolu mooy soobu gi soobu <laughs> gi nga xam ne day mel njàngkat xasida faaw mu jaar ci day dem jamono yoo xam n day jàpp ne ñépp ci lii lañ war a nekk nga xam ne bu bu la gisoon gaa yi jàng xasida sax nga xaw a kii nii rek yow dalay jàppe ku bokkut ci yoon yu sëñ moom bu sañoon ñëpp ci lii la ñu nekk mooy suubu nga xam ne moom day tar su ko weesoo léeg-léeg ñu naan diw daa daa bàyyi fekk bàyyiwul léegi daa am tamkiin léegi yëf yi roode na ci moom moom du ko dootu ko sonal bu ko weesoo doog dem ci nassul radiya ba ci mardiya fi ne nit ki li fekk jéggiwul nassul mardiya iblis amagul ci moom soxla ndax bakkan yi la la bàyyee woon yow ñoo doon jëm ci yow jamono ji nit ki jàng xasida ab xolam di leer ba ruuxam di tàmbalee am dara ba ruu gi do di jot bakkan bi jamono yooyu ruu gi ak bakkan bi dañuy xëccoo cër yi ba ci xel bi léegi mooy tax buñ ñee kaay jàng xasida maanaam mën naa bañ am lu naan ko demal am lu naan ko toogal léegi nag lu ci ëpp doole rek mooy xëcc cër yi lu ci ëpp doole mooy tax jëmm ji dem kooku bu tollee foofu sikk sàkk soosu day am yitte yëkkati xasida gi di ko jàng waaye su yëkkatee rek tàmbale yow tàyyeel ak góor léeg-léeg mu yëg ci xel mi ay xalaat yu bon yu koy dikkal yoo xam ne du bëgg sax mu teew ci xelam xalaat yooyu la bakkan bi sànni léegi naqari googu mu koy naqari loolu mooy ruu gi <laughs> naqari gi mu lay naqari li ngay xalaat naqari gi mu lay naqari mooy ruu gi lu bon loolu ñëw nag mooy bakkan bi soo ko weesoo nag day tàmbali amul dëgër foofu la ci misaal jànkati maraaxi bi loolu yomb na leen mooy xel mi léegi day connecté wu ci ruu gi moo tax loo xalaat rek gis ko da gis koo xam ne bu dara xewee daan su ma yëgoon wax ko te nii laa ko gisee woon nii laa ko xalaate woon da toog rek xalaat kenn woo la nga wëlbati sa téléphone gis mu lay woo léegi xel mi moo tàmbalee connecté wu ci ruu gi te ruu gi amul baaraas moom lépp day teewandoo ci moom moo tax nga yëg yoo xam ne da nga naan lii xewoon na wala lii bu lu tax waxuma ko waaye nii laa ko yëge woon loola bu demee nag ba sa ruu foofu la sëñ nga dégg si Tuubaa naan dakkaa u xaq lii kaada mislal wax yi gis nga kaada la njëkk a wax booba ruuga ma ngay jot xel ma waaye daa mujj ne saara mislal wax yi léegi sama leeru xel dafa dem ba mel ne ak wax yu ñun lay waxal rek jànkatu xasida bu demee ba ruuxam ne ko léegi buy xalaat mën na ko waat ndax li ñuy ñëw ci xel mi moo ko wax yu ñooy yem bu boobaa bu nit di wax ak yow doo gëm li mu lay wax li ngay xalaat ngay gëm ci moom danga dem ba bu la nit ba bu la nit saaga woon yow doo gis lu ñaaw ak leer ngay gis yow bu nit di wax ak yow te li muy wax du dëgg li lay xamal ne wax ji du dëgg da ngay gis lëndëmug wax ji bu dee dëgg dangay gis leeru wax ji mbir yi yaa ngi koy mën a tàqalee bu boobaa ci leer ak lëndëm noonu lay ñëwee ci yow bu boobaa dara doot la jaaxal bu boobaa nag sa sa xol ci lay doog a connecté wu ci sa ruu nga bëgg Sëñ Tuubaa rek daal di amul cër nga xam ne boobaa jege ga sori ga mooy yem waaye da ngay jàkkaarloo moom foo toll gis nga bëggu ruu googu ci teggin lay dox bu sëñ bi ne woon tëll looloo ko wuuteleeg bëggu bakkan bu dee bëggu bakkan yëngu la bu dee bëggu ruu bu sëñ bi ne tëll say bët dootul ñemee siggi sa xol mooy ubbi ko moo tax nga gis mag ñi bu sëñ masaane génn dañuy sëgg doo ko ñemee xool gis nga ñun léegi dañ naan jàkk di xool boole ko sax xool bi doy ñaari bët yi doyuñu waaye dañ ci boole la neen bu dee ñee nag maanaam bu dee ruu gi moo moo connecté wu ci xol bi ba xol bi bëgg lu la leer gi gën a jege cër yi gën a yaru cër yi gën a yaru moo tax bu sëñ bi nee tëll léegi teg teggiin mooy gën a wàcc ci cër yi ndax ruu gi day gën a connecté wu ngay gën a yëg màggug leeri sëriñ bi ci ci yow bu boobaa mën ngaa bañ a nuyu sëñ bi waaye sa xol moo koy nuyu mooy taataan ca leer ya loolu ngay jële ci ci ci ci bëgg gi bëgg googu da lay ubbil mbir yi loolu nag. li koy maye mooy dund sëñ te jaar ko ci xasida yi li may faral di wax ne xasida yi ku mënta defar bay boo nga dem topp ak defaru maanaam du la yombaat ndax kattan gi nit ki soxla ngir mën a ànd ak sëñ mbir mbiri lii maye leer bari na de waaye leer gi sëñ wi vitesse am dafa gaaw li la mën a may kattanu nga mën a ànd ak moom xasida la kon ñu gën cee góorgóorluwaat nun ñëpp te gën cee bàyyiwaat xel gën a war maalaat sëriñ bi waaye gën a war maalaat xasida yi fexe ba dara lu ñaaw buñ ko ko jegeele dara lu taq buñ ko ko jegeele waaye gën a bëggante ci suñ diggante gën a tegginu yoonu yàlla du yoonu kàttan waaye yoonu pëstéef la mooy li may wax ne sëñ Tuubaa du kem kàttan waaye kem pëstéef la du kem kàttan kàttan yi amul amul kàttanu jot àq sëñ bi waaye pëstéef yi nag amul fu mu yem <laughs> moo tax buñ santaanee liggéeyu sëñ Tuubaa ka ca gën a néew kàttan mën na caa raw ci sëñ bi ndax pëstif ba lay rawe waaye du kàttan bi moo tax pëstif bi mat a fonk buñ santaanee liggéeyu sëñ moo tax xol yi lañuy ñuy waajal sëñ Tuubaa loolu la daaneele li ma waxoon keroog ne sëñ Tuubaa du ku ñuy waajal ci kër kese waaye xol lañ koy waajal dama cee joxe misaal ñaar du ko ñuy jox lu réy nii rek ngir bëgg koo jox lu rëy waaye dañ koy jox lu sell lu sell fi ne adde yi daa gën a bari waaye jeex yi di daa gën a néew da gis ko xam day dem ba adde ji muy joxe sax dangay ngay dégg muy waxaat ne ñun de fu ñu toll ñoo ngi joxe gis nga ci misaal rek seytaane yàq gi bi màggal gi jub si da gis sas yi sas yi nu ne lañ koy defe naan sas yi moom a diisal sas yi nangam sas yi nangam gis nga bu fekkoonte ne dafa sell yow doo yëg ak diis ndax li nga soxlaa koy ëpp fi ne ñun addee ñi ko dégg ci joxe yokk sëñ bi loo ko jox mu fulal la ko <laughs> loolu tam ma yeete ci tuuti gis nga loo ko jox mu fulal la ko joxe yokk xam nga nuñ ko jàppee boo joxee deux mille am quatre mille <laughs> sëñ mën na laa jox quatre mille loolu du loolu de wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin joxe yokk mooy joxe googu tasawuf di wax mooy joxe goo xam ne ci xol bi la mooy ci misaal moo tëjoon joxe misaal biteelu ndox bii nii xam naa li muy jar xanaa wërta àgg téeméer léegi boo ko jëndee woon un million fi un million yi nekkoon ci sa xol biteelu ndox bi moo fay nekk xam nga li ma wax joxe yokk gi nag liñ ci jublu mooy bi nga jëlee li nga jël di ko jox sëñ bi bu fekkee sëñ bee tax fa loola nekkoon ci sa xol ak bëgg sëñ Tuubaa ko fay wuutu léegi kon li dem li ñëw ko gën loolu tax ñu ne yokk nga kon moo koy moo tax bu fekkee joxe bi sëñ Tuubaa tax dalay yokk ak cofeel loolu sëñ Musaa Ka naan murit addi yi ak siyaare jee koy dolli nóorul wilaayat yi ba leer yay jolli waaye su fekkee yow dangay joxe ngir yokk ko xaalis loo gën a joxe gën a bëgg àdduna <laughs> fi ne moo tax gis nga bari na ñoo xam ne lu ñu gën a joxe àddee gën a bëgg xaalis <laughs> moo tax bu joxe bi loolu mat na cee bàyyi xel moo tax sëñ Amar Samb ba sëñ bi génnee Louga war a dem Sànnoosi gaa yëpp gaare maanaam teg seeni seeni seeni waruwaay bu doon jamono ji kenn ku ne oto ba nga gën a rafetle nga teg am na ñoo xam ne keroog seeni fas maanaam tegi nikkal lañ ci teg waaye ba sëñ bi génnee daa romb fas yëpp ne ana Amar Samb ñu ne ko ñu ñu xàllal ko mu agsi sëñ bi ne ko saw fas la ma sama borom taamuloo léegi lu ñu ciy jànge sëñ bi daa romb ya gën a rafet ya gën a rëy tànn li gën a sell ba léegi sëñ Tuubaa ngi fi di nangu addi yi ngir mu jeexital ci yow danga koy jox lu sell ndax mooy tax mu nangu ko ak foo ko mën a jaarale bu sellu dadul àgg loolu du sëñ bee koy bañ de yàllaa ko aar ba loolu dadul mën a si ci mam moo tax li ngay joxe ak li ngay jëmale ci sëñ bi ngir mu jeexital ci yow day gis koo xam ne nam màggale woon daaw bi mu ñëwee maanaam daa daa wàññi ko waxuma daa wàññi ko ci alal ko yee daa wàññi ko maanaam moom fa mu tolloon daaw léegi wa gën naa wàññi ko sax léegi ndax léegi daa gën a bëgg alal ndax lam doon def daaw lépp xaalis la ci doon wut mooy daa bëggoon bunti àddinaam gën a ubbi ko <laughs> maa koy moo tax ba mu waree ca façon ba agsi sànnoo si moom sañ Tuubaa mag ñi gis ko ak cortège bi dañoo dañoo yërëm sëñ Siré ba noppi jàpp ne mënu koo dalal ñu wax sëñ Tuubaa ne ko tee ngaa wàcc dal fii ndax sireloo kër ga daa xaw a ràpp sëñ bi ne leen siréloo day bu kër ga ràppee it xol ba sàkketu na sëñ siré ñu woowe ko mu ñëw nee bi ma ñëwee ba seen sëñ bi rek laa tàmbalee raam bi ma ñëwee ba jege ko suñuy bët ñeent daje nee sëñ bi ne ma siré ana foo may dalal nee na baatu foo may dalal bi bànneex bi mu def ci sama xol jàpp naa ne moo daq àjjana nee na ma joxoñ ko néeg bi ak jàkka ji gis nga sëñ siré amutoon fu mu dalal sëñ Tuubaa ngir kër gu ràpp waaye fa la sëñ bi dal diiru weeru koor fa la julee kori kon sëñ tubaa xol ba la dalal waaye dalalul kër ga ba léegi ku bëgg sëñ tubaa dal ak yow da koy waajal ci sa xol bu boobaa sëñ tubaa mi ngi ci bunt bi bu xol bi set muy tàbbi buy tàbbi ngay baax di yëg waaye du daana wax ne duma ma feccali ndab duma bokkaale ndab lu ma waay booleel ma bàyyi laak loola du ma feccali ndab mooy boo defee ci xol bi dara duma dugg du ma bokkaale ndab mooy boo ma ci defee bëggee def danañ ma génn kon moom rek moo ci nekk wasalaamualeykum wa rahmatullah